kami belajar yang biasa saya ini juga. Ya, Bom dia, jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo ITFA rajo ITFA ànd ak yéen ci programme yi yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo ITFA ànd ak yéen lépp luy askanu Gambia wala mu soxal askanu Sénégal te nekk ci biir Amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo ITFA ci programme yu am solo rajo ITFA di rajo askan wi leeram ya jolli na foo xool foofa baawaan rajo ITFA daal dama ni jàppal ma bii rajo bul ko bàyyiti ba mukk rajo ITFA rajo askan wi رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب والقلب صلي على محمد العلي والفريق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين mbokki jullitu تدي في أمريكا ولا بوك في أوروبا ولا بوك في ci ولا في ci wala bokk ci àdduna bi wër képp fu ngeen mënti nekk ñoo leen di nuyu nu mu gën a tedde di leen ziar mu gën a selle wante nag jiti jiital sang bi Cheikh Sidi Ahmed si bu suñu maam Cheikh Sidi Mohamed Habib si bu suñu maam di tedd ja Cheikh Hadj si radiallahu taala anhuma mbokk yi te nag ci seen programme bu mag bi ñuy woowee xadaratul jumaa nekk benn ci leeri ci daara yi maam Cheikh El Hadj Malick si radiallahu taala anhu jooj nga xam ni rek moom la sang bi Cheikh Sidi Ahmed si toxal fii ci Amérique di ci laay laayanti biir ak mbokk taalibe yi ñoo leen ci gërëm di sant ci ànd bi ci ànd ak ñun bokk ak si mbokk Serigne Pape Kébé ca Boston Serigne Pape ñoo ngi lay nuyu di la ziar si guddi àjjuma maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, alhamdulilah Pape naka mbokk xadar yi foofu Boston. ah, ah sant yàlla sant sant yàlla sant yàlla rek xanaa waajal rek euh, storm bi nga xamante ne moom lañ moom la ñuy tudd di waajal ëllëg waaye liñ ci booree lu sant suñu borom. alhamdulilah yàlla na sant yàgg ñuy déggante ci jàmm. ci barke yonent bi alayhi wa sallam allahuma amin xam naa ni tey moom mbokk yi bi kenn bañ a dajant kenn bañ a nelaw ndaxte waxtaan wi ñu soobu tey bu yàlla suñu borom subhaanahu wa joxoñ joxoñ ñu ci alquranul karim li ñu fastiru ila allah yéen ñëpp jël leen seen bagage jël matuwaay te wuti yàlla suñu borom subhaanahu wa suñu maam Cheikh na Ahmed Tidiane Serif radiallahu taala anhu dafa jóg àndandoo ñun def ñooy mbokk taalibe yoon woo xam ne ci jaar mën a àgg suñu borom subhanahu wa taala yoon woowu nag la bëgg a waxtaane tey ànd ko koo xam ni vraiment liñ ko présenté tamit ci biir euh, Sénégal ndax nit ñi miin nañ ko foofu ci ci jàng ak ci jàngale jàmmalewu ko rek ci benn dëkk wante diggante Dakar région de Dakar foofu mu dëkk noonu gox boobu ci yoof ba ci bayaan yam fay def ci jumaa ji bayaan yooyu siiw na fa noonu la koy toppe ci biir Sénégal ba fa nga xam ne tey jii falay lay jàngale diine mu nekk ci ñaaxeen ci ñi miin boori Tiwaawan boo rombee ci Tiwaawan rek ba weesu hmm. ngaay mexe ci diggante boobu ak meewaan foofu la hmm. nekk di jàngale wante daan semaine bu nekk dina dellu si Dakar di jàppale mbokk yi ci juma ji muy jiite foofu ci booru APIX naka noon tamit coordination daara yi nga xam ne yëpp ñoo nekk yoof moom mbokk ñu ca ña nga xam ne ci njiite la bokk di organiser daayira ak njàng ma te loolu lépp rek dafay dellu siwaat nekk ci biir toolu Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif Maulana Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif kon am na nañu mbégte lool di oh. dalal kooku muy oustaz Moussa seen ci fii ci daara ji mu ñëw tey muy daare Mamadou Malick Sy radiallahu taala anhu oh. oustaz Moussa ñoo ngi lay nuyu di la ziar di ziar soxna si ak mbokk yi foofu ci Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaam allahi bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xaj E, di ziyaare di ziyaara mbokku daara yëpp macha allah hmm. di ñaan sunu kàddu fekk leen yéen ñëpp ci jàmm dëgg yàlla di rafetlu taxawaay bi ak présentation bi alhamdulilah tamit di rafetlu seen liggéey ak yitte bi wax dëgg yàlla hmm. waaw ñu ngi jaaral sunu nuyoo nag tabarakallahu ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoom la yàlla dogal ba xame bi am ba mbir mi mën a taxaw ku mel ni Oustaz Xasan Seck tabarakallahu ngeen xam ko di seen wëllëre sunu wëllëre ak Oustaz Eliman tabarakallahu kon ñoom ñoom ñooy sunu bunt ci yéen fa tabarakallahu Oustaz Xasan Càndum yi tamit wax dëgg yàlla di borom taxawaay yi tamit di borom yitte kon daal ñooñu lañuy jël daal suñu nuyoo teg ci seen loxo ñu jaaral ko ci waa daayire bi yépp di leen ziyaara di la ziyaara yow tamit wax dëgg yàlla ci taxawaay bi ak ci yitte bi di ñaan yàlla yal na yàlla defal ñu tawfiq li nga xam ne ni moom lañu ñu bëgg a jéemoo waxtaane yi tamit mm-hmm. di lu jafe waxtaane lool waaye di lu yomba waxtaane lool parce que ki ñuy waxtaane ku ñu xam la Mm-hmm. kon ku ñu xam nag waxtaane ko du jafete kooku mooy maulana seydi ahmad Tijani. ax li mu ñu andil di tariqam yani charte yani condition moom moo nekk ci tariqa boobu kon daal lii mooy lu ñu bëgg a waxtaane ak yéen ci kàttanu sunu borom subhanahu wa taala kon ñu ubbee loolu rek bàyyi la nga taxal nga doxalaat ba ci kanam insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ustaz moussa jërëjëf nuyoo bi ah, introduction bi matee na matale na yàlla na yàlla suñu borom subhanahu wa taala jàppale nu ah, sëñ Pape sëñ Pape euh, ngi amaat mbégte lool di seq yow plateau bi di mm-hmm. jaar ci yow di nuyu mbokku président euh, daayira yëpp président daayira ITFA yi nga xam ni ñoo ngi ci biir États-Unis yëpp di ziare mm-hmm. tamit comme ni nga koy waxee toujours rek suñu yayu euh, daara mu soxna ma jigéen yàlla na yàlla gën koo dëgëral yokk wéram eh, fay ko ci jàppale bi muy jàppale sang bi ci liggéey bi ak orientation yëpp yi mu ñuy jàppale ñun tamit xam naa sëñ Pape ci liggéey yooyu sax muy liggéeyu xadara bi fan ngeen ci toll semaine bi lan mooy programme bi waaw jërëjëf jërëjëf euh, Haj Pape bi euh, balaa ñuy tàmbali xanaa ñu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi di sant suñu borom moom mi dogal ñu toogaat tey àjjuma ci waxtu wi la programme it fa sëñ Sidi Ahmed mu ngi jàngale alquran bi mu ngi koy tàmbali ci dimanche dimanche mu diggante huit heures ba trois heures heure yu New York oh. bu ñu fa jógee mu dem mardi mardi mu ngi kay jàngale diggante huit heures ba dix heures euh, oh. New York time boobu tamit olof la bu jugee ci euh, mardi bi mu ngi dem ci classe samedi bi samedi bi bi nga xamante ne mu ngi koy def diggante une heure ba trois heures New York time mais classe boobu anglais la ak olof oh. klas yi ku ci bëgg bokk nag da nga mën a jo di nga mën a jokko ku mel ni soxna ndey amisaar uh, ah, mën nga ko woo ci 401 261 2701 wala nga mën ni ku woo soxna maam aadama gi ci 401 688 56 17 mbaa mu woo la yow haaj baab mbay mbaa mu woo soxna uh, eh, ndorin uh, eh, wala mu woo soxna jeewo ba wala sëriñ cheikh diall bu ñu jógee ci classe su alquran yi li ñuy wax ëttu ITFA hmm. li nga xamante ne lépp ñun ki nga xamante ne mu ngi ci àdduna li muy soxla ci àdduna surtout ñun ñu nekk fi li nga xamante ne dafa dafa jëm ci wàllu immigration wala dafa jëm ci wàllu li nga xamante ne soxla na ko pour euh, euh, topp li nga xamante ne yoon wi euh, dëkk bi yoon wu te wu tegal nga mën ko topp boo xoolee démb rek euh, Haj Pap Ndiaye Gueye suñu mbokk bi nga xamante ne mu ngi ci studio Daara Habibi bu nekk Kentucky indi na fi ni nga xamante ne lu tax doomu aadama bi nekk fii mu war a fa euh, fayal tax ni ko dëkk bi të tërale wax boobu dafa indi woon euh, ni ki tey àjjuma dañuy indi oustaz bi nga xamante ne mu ngi Sénégal wala ki nga xamante ne mu ngi Gambie wala ki nga xamante ne sax mu ngi fii ci dëkk bi fii ñu nekk bu ñëwee rek ah bu ñu indilee waxtaan rek ñu waxtaan ci bu ko defee mbokk mi ku ci am lu muy laaj rek après momi it daf moom it dafay laaj mhm. ah, oustaz bu ñu jugee dem ci li nga xamante ne moo jëm mercredi bi huit heures et demi ba dix heures et demi ah, New York Times ba tey mhm. ah, boobu euh, fa la ñuy toog lépp li nga xamante ne il faut projet yi mu am yëpp yëpp yëpp fa lañ koy toog waxtaane ko borom bopp yi borom xam-xam yi ñëpp sottante xalaat rafet ko def ko ba mun na mu gën a rafetee bu ko defee nag euh, ñu daal di ci tàmbali ci sëriñ bi buñ fa jógee tamit ñu am ki nga li nga xamante ne lu bees du ma ne lu bees sax waaye il faut comme yàgg na ko def waaye léegi ñu ne dañ koy fësal dañ koy fësal mooy ibra ibra fën bi du jaas te ba kenn bu mos dund rek di nga di nga mos di nga mm-hmm. ah, ki nga xamante ne daf ciy bëgg bokk mën na jokkol ki mel ni ku mel ni Cheikh Dial ci deux cent soixante sept six cent quatre vingt huit 89 80 mhm. wala mën nga ma woo man Haj euh, Pape Kébé euh, ci 978 856 54 01 waaye balaa may tëj tamit euh, mhm. ki nga xamante ne mu ngi nekkee Europe bëgg jàng alquran mën na jokkoo ak soxna rox Roxaya Cissé moom ma nga ca France ci 337 665 54 741 wala ki nekk Sénégal mën na jox euh, soxna Oumou Khayri Diallo ci 221 70 651 38 89. classe yi boo ci bokke bu fekkee ne xëy na bés ba mënoo ci dugg boo subscribe ci ITFA institut YouTube channel bi classe bi la romb mën nga ko fa mën nga fa demaat euh, euh, nafaraat ko nafaraat ko hmm. foofu xanaa comme ni nga ko waxee sànq. Euh, waaw xaj ba di dellu di nuyu di delluwaat nuyu suñu sëriñ suñu wasila. Mhm. seen si Ahmed si bu suñu maam Habib si bu suñu maam Seydi Haj Malik radiyallahu taala an mhm. di ko mu jokkale ñu nuyu bi ci mboolem xadaraat yi nekk fii ci États-Unis ak mboolem doomu aadama bi toog fii ci euh, Zoom bi ak ki nga xamante ne mu ñuy suuf ci YouTube bi di ñaan soxna suñu euh, yaay daara jàmbaar ci listam soxna ma jigéen sekk si mu jàllale nuyoo bi ci mboolemu soxna yi fi nekk ak mboolem soxna yi nga xamante ne ñu ngi ci xadaraat yi ak soxna yi nga xamante ne ñu ngi ci YouTube bi di ñu seetaan foofu di mm-hmm. dolli di dellu di nuyu Oustaz mu Sène mm-hmm. ah, di ko xamal ni comme pas-pas bi benn la kër gi benn la mm-hmm. ah dafa mel ni rek mu ngi ci këram salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa sëñ Pape fa tabarakallah Ibra fan boobu ngay wax ku ci soxla information ñu ni na la yow ci Boston wala mu woo suñu mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Dièl ci Philadelphie wala boog président daayira bu mu mënti woo ci Amérique rek dina jokkoo ak yéen ba teg ko ci yoon wante dama bëggoon a xam Ibra fan boobu maanaam bu boo ko bëggee dégg mooy mbokk yi nekk ci dëkk bi te bëgg ku fi wàññeeku muy ñoom wala seen njaboot wala seen am di jàmm ñu mën a delloo koor bi Sénégal wala bi wala dëkk ba mu cosaanoo loolu mooy Ibra fan wala. waa loolu mooy Ibra bi te dañ koy yaatal sax te yaatal biñ ko yàkkal dañ ne doomu aadama waxuñu jullit bi wala waxuñu. Eh, eh, suñu suñu mbokku catholique yi doomu aadama la doomu aadama moo ko tax a jóg contribution mensuelle wala annuelle bi ñaata la. Ah, contribution mensuelle bi lu bees la sax luy lu ñu indi. soixante dollars dañuy def benn promotion bu ndaw. waaw dafa am quarante dola bi nga xamante ne registration fee la. waaw mu am soixante dollars boo xamante ne mooy bi ngay fay benn yoon ci at bi moo boobu mooy ibra fan bi. mais képp ku adhéré fii ba ma mars euh, mars trente euh, trente mars. waaw sa quarante dollars bi dañ ko dañ la ko wéyal. Ah, loolu koy yomb <laughs> la. loolu loolu loolu defal yàlla loolu koy yomb dafa tabaarakallaa. waaw alhamdulilah sëñ Pape loolu kon yàlla na ko li ngay wax toujours rek yàlla nañu yàlla may dégg ak topp. allahumma amin. waaw ndaxte. soixante dollars bëri na wante bëriwul buñ <laughs> mbokk yëpp boo lay jox joxe soixante dollars lépp lu fi mën a xew ci dëkk bi rek dinañ mën a àndandoog sang bi Cheikh Sidi Ahmed si taxawu ko ba lépp jaar yoon dañu mën a àndandoog sang bi àndandoog président daayira yi toppatoo mbokk moom ba tegaal ko ci ay loxoy mbokkam ca Sénégal wala ca Gambie wala fu mu mënti jóge ci àdduna ñu nekk ci Amérique kon naa paas sant nañu yàlla suñu borom subhanahu bu baax a baax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante tamit ki nga xam ne yàlla ci suñu borom moom la jaarale xéwal gi mu Cheikh Sidi hmm. Ahmed si mi nekk fii àndandoo ñun di ñu gindi nekk ci yoon wi àndandoo teg ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax ci moom di ko hmm. ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér ndax moom bu dëgëree tarixa bi gën a dëgër te bu tarixa bi hmm. dëgëree islam dëgër noonu rek kon sëñ Pape xam naa temps dem noonu nga may may rek tuuti ñu dellu senegal nag foofu nag euh, fa tabarakallahu may Cheikh euh, Moussa Sène kenn ki nga xam ni kenn ci jàmbaaru euh, islam mm-hmm. ndaxte nekk ci bëgg nekk ci jàkka ji bëgg nekk ci jumaa ji bëgg nekk ci daara ji bëgg nekk ci tool yi dëgg-dëgg yombul wante mi ngi ciy góorgóorlu la mu mën ndax islam gën a ci biir senegal mm-hmm. Cheikh Moussa yoon wi nga xam ni moom la ñu suñu sang bi Maulana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif tëral mooy lan ak naka lañ ciy duggee. alhamdulilah rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن مولاي أحمد التجاني ومن لنا إليه وسيل كاشف الغمم ومن تعلق بالأجيال قاتبة صب علينا إلهي أبحر العسم ورضي الله عن مولاي سيد الحاج مالك عليه رضا المالك وجميع مقدميه waman tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu pap ñu ngi yeesalaat sunu nuyoo ci yow di ziyaara di ndokkeel tabarakallahu sëñ pap kebe ci lu leer lu am solo limu mu wax ci wàllu ndimbalante ci wàllu diine te mooy mu am solo lool lislaam digle ko kon initiative boobu yal na yàlla jàppale leen ci yal na yàlla jàpp dugal ci loxo yërmandeem ñu ngi ziara seen sëriñ ci suñu sëriñ di sëñ Habib sëñ Ahmed si ñu ngi koy ziara moom itamit di jël sunu ziara di ko teg ci loxoom mu jaaral ko ci képp koo xam ne ni tabarakallahu président daayira nga ax foo mën a nekk rek jël nañu ziara bi teg ko ci loxo sëriñ bi sëriñ bi moom xam na na mu koy def ba ñëpp a jot ci tabarakallahu waaye dafa am lu am solo mooy lu ñu boole di mawlaay ahmada tijaani radiallahu taala anhu yàlla jox ko lu rëy te moom moo di tariqa bi nga xam ne ni jaaral na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tariqa siidi ahmada tijaani waaye tariqa boobu ax yiw wa mu am xéewal ya mu am yépp dafa am loo xam ne nii mooy condition yoo xam ne moom la tariqa bi tënk gis nga suñu maam Serigne Hadi radiyallahu taala anhu dafay wax ba ca digg ba rek ne li ñu leen di wax ci tariqa bi neex na lool li nekk ci tariqa bi ci ay ngëneel bari na lool waaye nda ngëneel yooyu dafa am lu ko jiitu te moom mooy charte yi muy condition yi tax ñu tuddé la tidiane bo xamni ni tidiane bu mat tidiane nga siñ hadi ne fal nasri fi l inaana li shuruti li annahu lawazimun mashruti lu way mana wax waxul jëme ci charte tariqa bi ndax te charte tariqa bi lu man ta ñak ci tariqa cheikh ahmad tidiane la radiyallahu taala anhu e tabarakallahu góor gi tamit wax na ni bushra liman minhajana salaka waraa sharaitana wa ma taraka nene ngëneel neel na képp koo xam ne nii tabarakallahu wax boobu la sëñ Hadi wax wax bi njëkk wax noonu wax boobu Cheikhul Xaaji Malik moo ko waxoon képp koo xam ne nii tabarakallahu bëgg na ngëneel mooy ki nga xam ne ni soobu na sunu yoon yoonu Seydi Ahmad Tijaani waaye tamit mu sàmmunte charte yi muy condition yi jàpp ci charte yoyu te du ko bàyyi mukk Mawlaaye Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu moo waxal ci làmmeñu boppam moom Cheikhu Tijaani ne tawajjah naxwana tu'tal man tu'tal amaana nee ne jublu si ñun boo bëggee am sécurité nee na nga gëmm sa bëtu bëtu xol wëlis ku dul ñun te nga taxoo ak sunu kóllëre fex yaa ngi dund nee na lii boo ko defee danga mucc nekk ci sunu kaaraange ñun cheikh charte yooyu ndëg ci bu ñu ko yaatalee charte tariqa Ahmad Tijaani mbokk yi ñeen fukki charte la ñeen fukki charte yooyu benn charte bu ci nekk am na delluwaay ci alquran ak sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi waaye gis nga ñeen fukki charte yooyu tariqa bi daf ko xaaj ci ñeenti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy ñaar fukki charte yi ñuy tuddee churutul kamaliya al mutaalliqa bi shakhs te mooy charte yi nga xam ne nii dafay matale taalibe bi mu doon taalibe bu mat sëkk waaye charte boobu dafay wekku ci jëmma ji nga xam ne ni dafa ne moom taalibe Mawlaay Ahmad Tijaani la maanaam ñaar fukki charte la yoo xam ne nii yow bo nekkee ci tariqa bi te mataloo ñaar fukki charte yooyu man nga sax doon taalibe waaye taalibe na mu war a matee doo matee noonu yooyu charte ñaar fukk la mu am yeneen fukki charte yoo xam ne ni dafay wékku ci wird wi maanaam képp koo xam ne ni yaa ngi wird bu fukki charte yooyu dajewul yow bu boobaa dañuy wax ne ca wirdu matul na mu war a mate mu am yeneen charte yoo xam ne nii nag dafa taxoo si ki nga xam ne nii moom moo di taalibe bi maanaam yow bu fekkee ne nag da nga bëgg a doon taalibe ma Mawlaay Ahmad Tijaani te mataloo ñetti charte yooyu kenn mënula la tudde taalibe mënoo bokk ci tariqa bi mu denn mu ax nag mu des nag juróom-ñaari charte yi nga xam ne nii sartu yu war la te wekku ci wird wi mooy bu fekkee ne danga wird ba pare te sartu yooyu benn manqué na ci bu boobaa sa wird baaxul dangay dem tàmbaliwaat boo jëlee ñaar fukk boole ko ak fukk fanweer la lay jox nga jël ñett boole ko ak ju ak mu jox la fukk lépp muy ñaar fukki charte boo demee Mawlaay Cheikh Omarul Fuuti yi tënk na ko ci téereem bi muy tudde rimaax Mawlaay Serigne Babacar si tënkaat ko nag ci tënkin wu gën a tënku ci téereem bi ñuy tudde I'anatul Wildaan charte yooyu nag ñu tàmbali ci kon parce que ñeen fukki charte ku nekk xam na ne yaatu na lool mhm. waaye nag dañuy tàmbali ci ñaar fukki charte yi nga xam ne ni moom la ñuy wax ne mooy ashurut al kamaliya al mutaalliqa li shakhs képp koo xam ne nii dafay wax ne man taalibe cheikh laa muy wax bu rëy nag du loo xam ne nii tabaarakallahu wax ko rek yomb na waaye doon ko jafe na parce que cheikhu tay tijaan ni nee ne adduxulu fi tariqatina fa bil machiati la bi kaddi jismaani cheikhu na tijaan yi nee ne doon taalibe cheikh nee ne nammeelu sunu boroom la yitte du tax nga doon ko kon nag bu fekkee ne danga ko doon nag bëgg a mat nag ñaar fukki charte yooyu na nga ko bàyyi xel yow mi may déglu moo xam mhm. foo mën nekk ci goxu addina bi mhm. bi jiitu mooy an yaxtaara muqaddaman taqiyan saxixal izni muttasilan bi cheikh mooy bala ngay def dara foog nga tànn benn muqaddam boo xam ne nii ku ragal yàlla la ku am ndigal lu wér la ndigal loo xam ne nii bu ñuy xool jokkuwaayam jokkuwaay bu wér la dafay àgg ba sa Seexu Tijaan yi maanaam yow muqaddam bi ngay tànn mu doon sa jokkuwaay ci tariqa bi dafa am solo kon du yow ku la neex rek mu doon jokkuwaay kon wax dëgg yàlla yéen it dañ leen di ndokkel tabaarakallah si charte boobu si bi ngeen tànnee Sidi Ahmed si tabaarakallahu muy jokkuwaay nga xamne bo jele silsilam mom sidi ahmed da fay aga ba sa cheikhou tidiane te nag lolou nag mom moy li wer ci tariqa bi moy bu fekke ne da nga am jokku way bo xamne ni ki nga jokku kamu jokku kamu da dafay ag ba sa cheikhou tidiane lolou mom moy jokku way bu wer mo xadam yombul motax mu bolé ci taqiyan nan lañuy xamé ne mu xaddam boo xam ne nii mu xaddam bu ragal yàlla la te yàlla subhaanahu wa taala wax ne yàlla ki ragal yàlla yàlla rek ko ko xam Cheikhuna Tijaan yi nag nee ne am na màndarga yoo xam ne ni bu dajee ci muqaddam rek ku ragal yàlla la Cheikhuna Tijaan yi nee ne ñeenti màndarga la nee ne bokk na ci bi ci jiitu mooy xifzul xudud gis nga bokk na ci màndarga ragal yàlla bi ñuy xàmmewee ci nit mooy koo xam ne dafay wottu deytalu yàlla fi yàlla wax ne yam fa doo ko jéggi mukk kon bépp muqaddam boo xam ne nii xotti nga xorma sharia Cheikhu Tidiane ni nee ne man maa la génn kenn génnewu la muqaddam boo xam ne ni dem na ba xotti sharia def loo xam ne nii sharia tere na ko masalan ci misaal mu dem takk juróomi soxna Cheikhu Tidiane yi mel ne kooku xotti na sharia a hmm. nee na bokk na ci màndarga yàlla ragal yàlla te mooy bëslul majhud mooy moo tam dafay joxe yitteem ci taalibe yi leen lool di leen jariñ ci boppam nee na beneen bi tamit mooy dafay matale ay wëllëreem waaye tamit dafay doyloo ci li fi nekk nee na lii su dajee ci muqaddam mën nañu jàpp ne ku ragal yàlla la ñu dénk ko sunu bopp te loolu gis nañ ko ci serigne bi yalla na yàlla gën ko ci jappalé amin ya rabbi kon tabarakallah shart bobu itamit lu jar bàyyi xel la manam ci ngay jox sa bop mom moy kan ñu laaj ke shartu ñaarel bi parce que shartu bu ci nek rek man na tomu jangalé shartu ñaarel bi moy bok na ci li tax nga bok ci tariqa mawlaay ahmad tijani bok ci taalibe ya gën mat mooy ngay wottu julli juróom di ko jullee ci waxtu di ko jullee ca mboolooma bu fekkee ne ngant amul loolu bokk ci charte yi la bokk beneen ax tamit nee ngay sàmmunteex li nga xam ne ni moom moo di léppi sharia yow taalibe bi waaye tamit ngay moytu lépp loo xam ne ni tooñ la ax ger lolou dafa bok ci tariikha cheikhou tidiane kon talibé khulil li alquran wax si walu julli ni mu amé solo hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin na ngeen wottu li nga xamné ni mom modi julli te tamit ngeen bàyyi xel julli gu digga doomu go te ngeen àndax way julli ya warka'u ma arrakiin ñey julli ca mbooloo bu ñu leen fi bàyyi te nag sunu borom subhanahu wa taala dafa ne julli moom dafa doon loo xam ne ni yàlla moo ko dogal si jullit yi pour ñu taxawe ko waaye taxawe boobu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte bëgg nañ charte bu ñu wax ñu xam ne li cheikh wax ne lépp lu ngeen dégg ne man cheikhu tijaani man maa ko wax na ngeen ko natt si misaanu sharia bu fekkee ne dëppoo nax sharia rek cheikh nee na sama wax la su dëppoowul ak sharia rek cheikh nee na dañ ma ko wax dañ ma ko tuumal waaye waxuma loolu parce que man duma juyoo mukk ak shariatul islami moo tax wax bi mu wax ne sama taalibe bu bëggee doon taalibe ne julle ca mbooloo ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ban jëf moo gën si jëf yi yonent bi la mu tontu moom mooy assalaatu ala waqtiha julli ci waxtoom moo tax taalibe tiijaani tamit du faat waxtu ludul ne ngant dafa am bu ngant amul rek dafa war julli ci waxtu te ndëk loolu tabaarakallahu xam naa dana ñëw ci question yi ci ban waxtu mooy waxtu wi nga xam ne nii mooy waxtu wu ñu tànn ak waxtu wi nga xam ne nii bu nganta amee may nañ la nga julli ci ñaari waxtu yooyu nag su xësee ba jàll rek yow li ñuy sàkku ci yow mooy boo yéene da nga yéene fay te nag li tax julli mbooloo am solo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne julli mbooloo ëpp na doole julli kenn bi in wa ishrina daraja ñaar fukki daraja ak juróom ñaar moom la julli mbooloo ëpp jullu kenn suñ ko doon tënk dañ naan ki nga xam ne nii jullee na tey këram bés bu nekk mu julli fa cinq prières ak ki nga xam ne nii jullee na si jàkka ji bés bu nekk mu jullee fa cinq prières ñu dollil ko ci vingt sept vingt sept nga multiplier ko tey ji ak cinq kooku day am cent trente cinq ci ay yiw yow nga am cinq rek xulli déclasse boobu ni mu bare moo tax Sidi Hadji Malick dëgg ba mu koy jàngale téere ba dafa ne wallaay julli rek moo jaadu nag si ñu ubbil ko bunt wa xuqa li salaati an yufrada faslun laha subhaana man tafarrada Sir Xaaji Malik nee na kuy jàngale si jamono ji li gën a yey pour mu jàngale na jàngale julli ak nan lañuy julle ñu laaj ka lan moo tax Maodo mu ne nit dana julli ba bijjaaw masul matal julli boroomam waqad yusibu aarida insanin ma akmala salaata lirrahmaani Omar ibn al-Khattab moko massa taxaw wax ci kaw minbar ba ne te ngi julli julli kat te donul jullit don julli kat te donul jullit ndax te ke limuy julli yep dara matu ci budé dee du mat budé sujood yi du mat budé dee yep du mat ci Malik nene nit nek dana nek loolu motax dana ñu jangal mom sidi xaaj Malik yow tiyan bi nan nga mën julle ba sa julli don julli gu mat eh, tabarakallahu Eh, moo tax mu ne waxaan na feneen moom Maodo ne yéen jullit yi yéen njaboot gi yéen taalibe yi na ngeen matal julli ca mbooloo ma mu andi si condition moom Cheikh Hadj Malick kañ lañuy julli ji ca mbooloo ma mu ne bu fekkee ne am ngeen imam boo xam ne ni dana matal ponk ya te du fowe julli te du mankel julli kon ñun damay wax ne yow tidiane mi sax du kili du imam bu nek mom mo la meune cité waye amna imam yo imaam yoo ax nañuy jullee di fowé julli roko ya du mat sujud ya du mat sidi xaaji maalik nee koku modu la imam mhm. kon bobu man nañu ci yam fofu tënk ko mhm. benen charte bi muy ñettelu charte bi mom moy ngay dikke bis ngay andi basmala si mboolem julli farata yi di ko biral bu fekkee ne julli birël la bu fekkee ne yelu la tamit nga yelu ko maanaam tijaan buy julli du tàmbalee ci alhamdulillahi rabbil alamin loolu dafa bokk ci chartu tariqa bi maanaam booy booy tàmbali julli boy ubbi danga naan bismillahi rrahmani rrahimil hamdulillahi rabbil alamin kon dangay jël basmala bi nga boole mhm. kaax alhamdulilahi maanaam doo wax bismillahi rahmaani rahim taxaw doo wax dëkk door si teg alhamdulilah mais Seydi Xaaji Malik dane muttasilan bil hamdala bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin loolu nag eh, tabaarakallahu bu dee julli biral noonu nga koy defe bu dee julli yelu yow tijaan bi noonu nga koy defe bu ko defee nag leneen loo gis bul ko diingat sax na si sax na si koy def waaye tamit bu mu tax yewit nga bàyyi li nga xam ne nii moom la sa sëriñ digal la di Seydi Xaaji Malik ndaxte Seydi Xaaji Malik nee ne euh, bismillahi rahmani rahim li tax ma leen koy booleeloo ah alhamdulillahi rabbil alamin mhm. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko Abdullah ibn Abbas nettale nee na yonent bi dafa daan ubbee julleem ci bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin di ko boole di ko wax ca kaw kañ moom mawdo am na dalil comme sa sëriñ am na dalil nag keneen ku am beneen dalil bàyyi ko wax dalilam rek te yow nga jàpp li nga def beneen bi tamit mooy bu ñu xoolee si mazhab bi ñu bokk di mazhabu imaamu Malik ku nekk xam na ni wàllu basmala dafa bari ay atte Sidi Xaaji Malik nag andina atte yépp bi mu koy andi benn beyti rek Mawlaana Sidi Xaaji Malik dane karahatun ibahatun nadbun wujub mazhabu malikin xawaaka ya xabib mu ne boo demee si mazhabu imaamu malik am na ñoo xam ne ni dañu wax ne bismillahi rahmani rahim dañu ko sib ci farata waxuñu naafila boo ñëwee malik ci boppam moom daf ne dagan na muslamata moom kenn la ci kàngami maaliki dane bismillahi rahmani rahim lu ñu sopp la ibnu naafi moom daf ne wax bismillahi rahmani rahim dafa war kon nag damay laaj wareef ak lu ñu sib ak loo xam ne nii euh, euh, ngëneel la bu dajee lan moo doon priorité ci xaaji Malik nee na kon wareef bi moom mooy taxaw kon looloo tax taalibe yi tamit boobu nañu ci am seen fulli bopp bismillahi rrahmani rrahim milhamdulillahi rabbil alamin kon loolu mom mooy ñetteelu chart bi nga xam ne ni dana tax taalibe bi doon taalibe bu mat ñeenteeli chart bi nee ne moom moo di bi bu fekkee ne dafay julli dafay dal dal goo xam ne nii bu dee ci rukon ولا موي سجود دا فاي دال دال غو خامن ني دا نكو بيرميتر موم طالب بي مو مانا واخ سبحان ربي العظيم وبحمده واخ كو نيت يون تي مو دال نين لولو شرط لا سي طريق مولاي احمد التجاني غيسغا بورو كووي الله اكبر سيدي حاج مال ني بورو كووي لي غي واخ سبحان ربي العظيم وبحمده subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi bi tartiil nga toftale ko waaye waxul sax nga koy yàkkamti dem na ba wax moom Maodo ne bu fekkee ne dangay jiite sax li ñu mm-hmm. bëgg ci yow moom mooy nga wax ko juróomi yoon bu ko defee ki nekk ci sa gannaaw man ko am ñetti yoon waaye képp ko xam ne nii dafa doon imaam buy jiite سير حاج مالك نيني مو وور لا ني موم بوي جيتي دو ماتال تسبيح يي بول جولي سي غناو ماتول لا امام كون موي لما دون واخ سانخ مبير لا مو خامني ني مبير مو دوي وارا سير حاج مالك نيني ولا تصلي خلف من لا ياتي قدر الثلاث مده الحياه بيب كو خامني ني وور نا بوي جولي سبحان ربي ادم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الله اكبر الله اكبر الله اكبر ci hmm. haji malik ne ne koku bul julli ci gannaawam parce que matula imam parce que boo rukoowee da nga wara wax ñetti tasbih yi nga tar nga toftale ko bo sujote subhana rabbiyal ala da nga wara wax ñetti yon waye bul sacc julli gi parce que yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu jangal ne sacc bi gëna bon si sacc yi moy sacc julli te sacc julli mom moy ngay def comme na comme exemple nga dem sonna rek liggéeyi ba sonna ñëw ne xaaral ma julli wallaay dem di ruko di sigg di sëgg sëgg asalaamaaleykum nee na loolu moom wax dëgg yàlla boo ko defee boo paree julli gi ci boppam moom moo lay ñaanal yàlla na la yàlla xatal comme ni ma xatalee waaye boo wattoo juli gi nag toppatoo ko ba mu baax boo jullee ba pare julli gi daf lay ñaanal ne la xafizaka allahu kama xafistani yal na la yàlla wottu yow jaam bi comme nang ma wotto moo tax Sidi Xaaj Malik nee ne loolu ndëg julli ñaanal la ndëg jar na lu nekk si taalibe beneen bi ci topp mooy juróomeelu charte bi Sidi Xaaj Malik nee ne moom mooy lu mu néew néew yow taalibe bëgg nañ ngay def at mooy jóg guddi di naafila donte ka ñaari rakk bés bu nekk wala semaine bu nekk wala weer wu nekk nga def ko loolu xaarewuñu ko weeru koor rek comme ñu bari ñu ngi koy defee mais bu fekkee ne da nga bokk ci ci tarixa Mawlaay Ahmad Tijaani nee nañ bëgg nañ nga koy def donte que dangay ngay jóg guddi nga julli ñaari rakk tëddaat loolu bokk na ci charte li nga xam ne nii moom moo di tar tarsu tarixa Mawlaay Ahmad Tijaani alquran moo nu jàngal ne parce que dafa am lu ñuy tudde al maqaamul mahmud bu ñu ko doon jàngalee tey jii ah tey jii bu fekkoon ne wax nañu ne tey dañuy daje sa li nga xam ne nii mooy ambassade dañuy maye ay visa waaye bu ñuy maye visa trois heures du matin ku mu fekkul ambassade doo am visa tabaarakallaahu yaakaar naa ne ñi bëkk visa ñëpp waxuma la trois heures du matin waaye une heure dana leen fa fekk ñenn ñi sax tabaarakallah minuit dana leen fa fekk waaye nag li ñuy tudde maqaamul mahmud nag suñu borom nee ni dama koy jaay te lima koy jaayi nag moom mooy naafi lu guddi Sidi Xaaji Malik nee kon nag maqaama boobu dama koy yéene sama njaboot gépp wa minal layli fatahajjaj bihi naafilatan lak asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda kon loolu moom moo tax eh, ñu bëgg taalibe bi di jaamu boroomam ci guddi gi di bañ di biddanti taalibe Tijaan moom wax dëgg yàlla bokk biddanti bokkul ci moom biddanti bokkul ci moom Cheikhu Ahmada Tijaani radiyallahu anhu dafa am benn waay boo xam ne ñëw na ci moom eh, ne ko yow sama sanga di Cheikh Tidiane yi ko man dey dama bëgg a dugg ci ca tariqa waaye dafa am loo xam ne nii mooy feebar bu nekk ci man daal ma bëgg nga saafaral ma ko mooy manuma jox fajar man daal balaa ma jog fajar xar Cheikh Tidiane yi ne ko yow bokkuloo ci ñi sama tarixa mën defar demal ci beneen tarixa nga defaru fa waaw mooy ni moom mooy waykat bi wax ah fonkal fonkal wird ah te bul nelaw ba fajar neexi nelaw du ko jar si yoonu tijaan yi ah, beneen bi ci topp si charte yi te moom mooy juróom benneelu charte bi itam moom mooy talibe bi muy taxoox lu ñuy tudde arrawab arrawabit fil faraid moom moo di julli naafila yi topp ci farata yi nee na nga kay nga kay nga kay mooy lan bëgg nañ ci taalibe bi jamono joo jullee ba mu pare nga naafile ñaari ràkk wala ñeenti ràkk boo njëllee takku njëkk ngay julli takkusaan nga naafile ñaari ràkk bu fekkee ne nag dafay dellu ci li nga xam ne ni moom moo di timis moom maanaam naafila boobu ngay naafila si timis moom loolu cheikh moom mayu ko kenn ginnaaw julli timis moom taalibe tijaan bu mu mën a doon lu mu gën a néew néew néew néew néew di nga ñaari ràkk boo jullee timis ba pare bu fekkee ne nag timis googu daf la faat ba julliwoo ko bu nyari ñaari rakk yoyu bu la faté yang koy jengé juróom fukki salatul fatiha hmm. loolu timit moko talibé yépp bayyi xel manam yow mi julli timis bi nga timis ba paré nga warono julli ñaari rakk julli wo ñaari rakk nga dem ba ñaari rak loolu faat la ba waxtu timis jeex cheikhou tidiane ne ne bu boba li ngay jange lolu mom moy da ngay def juróom fukki salatul fatiha bu fekke ne ndëg ci shafah witr la mom shafah witr ken mayaw ko ci tariqa bi tax sañu loo bañ julli shafah witr bu fekke ne julli wo shafah witr ba mu fad la nee ne safax wittar xamal ne mu ngi ci sa los tegu dang koy fay boko ko ba pare dafa am lokay jange te li nga koy jege mooy ñetti jawharatul kamal loolu yi tamit ñu ngi koy bàyyiloo xel dafa bokk ci fiqu tariqa bi maanaam ki nga xam ne nii daf safa ak witar daf ko faat julliw ko mhm. ba fàtte ko ba waxtu wi jàll mhm. kooku cheikh nee ne safa ak witar boobu mu ngi ci aw loosam mhm. daf koy fay waaye bu ko fayee ba pare nag dafa am lu mu ko war jange te moom moo di ñetti jawharatul kamal gis nga sëriñ bi ñetti jawharatul kamal Cheikhu Tijaani nee ne dafa bokk ci li bëgg ci tariqa bi mooy saa bu jullee farata boo paree teg si ñetti jawharatul kamal maanaam saa boo jullee farata boo paree teg si ñetti jawharatul kamal parce que jawhar ñetti kamal taxawaay bi muy am moom mooy dafa lay jengal lépp loo xam ne nii ay damma damma la yoo xam ne amoon na ci julli Seexu Tijaan yi nee xataa julli mbooloo bi nga amoon yéene dem boo demee nga fekk ñi julli nañ mbooloo mi ba pare Cheikh nee ne boo jullee sa julli bopp boo paree nga def ñetti jawharatul kamal sa julli googu dañu koy yéegal sa julli mbooloo Seexu Tijaan yi yàlla nañu ko yàlla fayal amiin wax taxawaay boobu nga xam ne nii ak yooyu nga xam ne nii andil nañu ko kon loolu nañ koy bàyyi xel ñun ñëpp ah, yooyu bokk na ci fiqu li bi ci ni ngay taxawee yenn na yoo xam ne nii faat na la yow en tant que talibé beneen bi ci topp ci charte yi te mooy bu juróom ñaareel bi mooy an yakuna sadiqan fi aqwalihi wa muamalatihi wa af'alihi ghayra kazibin fi shay'in minha mooy taalibe dafay dëggu chart la ci tariqa ah bu ñu koy wax ci sa jëflan si sa jëf si sa jëflante si sa wax lépp nang ci feeñal ak dëggu kon mënuloo bokk ci tariqa Ahmada Tijaani doon workat mm-hmm. don kudul wax dëgg nee na loolu boo ko defee rek tabaarakallahu taalibe bu sikk nga ñu hmm. laaj ko cheikh lan moo tax nga jël dëggu boole ko ci sa tariqa mu ne parce que yonent bi daf ñu jàngal ne ne inna sidqa di ilal bir wa inna al birra yahdi ilal jann parce que yonent bi nee na dëgg si mbaax rek la la jëme te mbaax moom aljanna rek la la jëme yonent bi nee nit ki dana nekk dëggu di natt boppam ci dëggu lépp lu muy def ànd ci dëggu yenent bi nee ne dafay dem moom sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla daf koy bind sa kaw asamaan ne ku dëggoo ngi ni te loolu la ñuy xaar ci taalibe mais taalibe boo waxee lii tey suba la wet suba nga weddi ko loolu wax dëgg yàlla du jikko joo xam ne nii danañ ko xaar ci li nga xam ne nii moom moo di ci taalibe yonent bi laaj nañ ko sallallahu alayhi wa sallam ndax jullit dana doon koo xam ne nii ku nay la mu ne mën na nekk mën nga doon julit doon ku nay ndax jullit mën nga doon boxat mooy ku tàppet yonent bi nee na mën na nekk mais biñ ko laajee ndax julit dana wax lu dul dëgg dane al muslim laa yegg si jullit lu mu wax dëgg la war a doon xullil wax bi fi mu toll ak suñu jamono tey ji nit ku nekk tey dang ngay wax rek wax lu la neex boo xëyee génnaat ci loolu nag wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ci tariqa Mawlaay Ahmad Tijaani nee ne bunt boobu nañ ko gën a bàyyi xel si El Hadj Malick nee ne wa sidqu huwa zinatul murid si El Hadj Malick nee dëgg mooy taaru taalibe dëgg mooy taaru taalibe si El Hadj Malick nee ne yàlla nañu yàlla musal ndëg si fetteerlu te lu moy ñak wax mm. deug ñene yalla yàlla na yàlla musal ñu ci neene mm. bokk na ci charti te moy juróom-ñetti charti yi ñettelu charti bi moy sa talibé mom da nga wara top sa ñaari ndax te ke cheikhou Tidiane ñi neene li mm. tax ma duggal ko ci sama sama tariqa mom moy ñom ño tax ñooy sa sababu ñew fi ci adina te tamit ñom la yàlla gàlla li nga xam ne nii mooy première responsabilité ci sa kaw moo tax mënoo nekk ci tariqa bi di dënge say waaju sidi xaaji malik sëriñ babacar si radiallahu taala anhu charte boobu daf ka daan sàmmonte ba nga xam ne képp koo xam ne nii dafa daan ñëw di jël sa tariqa bi bokk na ci laaj yi mu ko daan laaj nan nga defax say waaju kon loolu yi tamit wax deug yalla ñu ngi koy lo xel ñepp cheikhou fan la tek charte bobu alquran mo neñu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yàlla mo dogal ñu baña jaamu kudul mom waye timit ñuy refetal jëme ci suñu wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ban jëf mom mo gën ci jëf yi jëf ba mu njëkkoon a wax charte la si tariqa bi te moom mooy mhm. julli ci waxtoom yonent bi ñu laaj ko ban moo si topp yonent bi ne birrul waalidayni mooy nga rafetal jëme ci sa ñaari way jur kon loolu yi tamit fa tabarakallahu ñu ngi koy bàyyi wat xel li nga xam ne ni moom moo di mbokki daare yépp ñu bàyyi wat xel jur yi Seexu Tijaan yi tënkal nañu ko tënkal bu mat Cheikhu Tidiane nee na képp koo xam ne matal ax xam ne nii moo dox digganteem ak ne julli julli juróom Cheikhu Taj Cheikhu Tidiane nee na juróom yaa ngi jéem a matal ax sunu boroom waaye bu fekkee ne jamono joo jullee ba pare nga ñaanal sa ñaari waajur yaa ngi matal axu waajur kon gis nga julli. li mu tënk ni mu amee solo jamono joo matal nga axu yàlla jamono boo jullee ba pare nga ñaanal sa ñaari waajur Seexu Tijaan yi ne matal nga axu waajur kon loolu yi tamit nañ koy bàyyi xel parce que alquran moo ñu wax loolu wa qur rabbi irhamhuma kama mhm. rabbayaani sagira yow yàlla yàll na nga leen yërëm ñoom ñaar comme nañu ma eh, yare woon yore woon ma ko ba ma doonee ndaw juróom-ñeenteeli charte bi ci charte Mawlaay Ahmada Tijaani mhm. moom moo di mu saxoo moom taalibe bi ci soppa Cheikhu Tijaani soppa goo xam ne ni sopp gu dëggu la waaye tamit soppa xalifay Cheikhu Tijaani waaye tamit soppa goo xam ne nii du dog mukk ba yowmal xiyaam ba dee kon soppa cheikh ak sopp lu cheikh njaboote loolu tariqa bi ñun dañu ko bëggloo kon mënoo nekk ci tariqa Mawlaay Ahmad Tijaani ne man kat tabarakallahu diwu mooy sama sëriñ waaye diwu sama yoon nekkul ci moom cheikh nee ne déedéet parce que ki nga naan sama yoon nekkul ci moom kooku njabootu cheikhu Tijaani la mm-hmm. yow ki nga jokk keneen ki tamit ka jokk ñoom ñëpp ci cheikh lañu jokk moo tax bu fekkee ne danga nga doon taalibu taalibe bu ràññee da ngay soppa xulafaawu cheikh yépp waaye nag mën nga tënku ci kenn ndaxte que tamit mënuloo tënku ci ñëpp mais nag soppa leen ñoom ñëpp wekk leen ñoom ñëpp fonk leen ñoom ñëpp moo xam ka nga xam ne ni xaaji malik radiallahu mhm. taala anhu nit ñëw na dëkk kawlax doon mhm. jël set yu moom tariqa bi cheikhul xaaji malik delloo ka ne ka demal kawlax parce que am na ka xulli li nga xam ne mooy diplomatie boobu ak yaatal boobu ak wëllëre woowu nga xam ne mag ñi noonu lañu daan doxe kon it tamit soppa mawlaaya ahmada tijaani nee ne saxoo ko charte la ci tariqa bi waaye tamit nee ne soppa xulafaawu cheikh yi ñoom ñépp loolu charte la ci tariqa bi nga euh, bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne man sama xeet ñëpp dañuy dugg aljanna ba mu des ku bañ yenent bi saxaaba yi laaj ko ne ko waa nit nan lay bañe bañ a dugg aljanna yeneenti bi ne ku ma sopp dana dugg aljanna waaye ku bañ dugg aljana mooy ku ma toppul man ataani daxal aljanna wa man asaani faxat aba kon ndekete nag loolu lu jara bàyyi xel la mawlaaya cheikhul xalifa dafa wax ci téeréem boobu ñu doon jund sànq ne mooy iaanatul wildaan dafa wax ne mahabbatu mawlaana tijaani ahmadi fa taksiruha fardun fa jaanib bi taariki nee ne topp sopp mawlaaya ahmada tijaani baril cofeel gogu nene farata faratala ci bépp jullit bépp talibé waye siri sëñ babakar si nee kep ko xamne ni soppul Mawlaay Ahmad Tijaani soppul xulufaawu cheikh nene koku kooku bàyyi ko fële kelu charte bi tamit mom modi an la yuzi akhahu fi tariq mu baña lor benn mbokkaam boo xam ne nii dafa nekk ci tariqa bi loolu charte la ci tariqa bi loolu nag ñun ñépp la concerne maanaam képp koo xam ne nii taalibe cheikh la rek bul fexe mukk yëkkatig lor di ko teg ci moom parce que cheikh nee ne képp ku lor sama taalibe jàppal na yonent bi nga lor hmm. isaayatuhu isaayatul mustafa kon bu fekkee ne da nga jël yow en tant que taalibi nga jël lor ka sama ka si man mii sa mbokku taalibi nga jaakaar ne man nga ko def cheikh ne na déedéet defuloo ko yonent bi nga ko def parce que yonent bi moom moo ar taalibi cheikh kon loolu yi tamit ñun ñëpp nañu ko bàyyi xel ah Seydi Xaaji Malik day nee ne képp koo xam ne nii mu ngi sax ci lor mbokki talibé yi koku na xamné yàlla dana ko dakh ci yërmande kon tabarakallah benen bi tamit Seydi haj Malik nene yàlla dana rékki lépp lo xamné ni jox na ko ci teranga ngir lan ngir lor gi muy lor ay mbokki talibé مولاي Cheikhul الحاج منصور بالقومي شيخ الخومي dafa wax ni izaayatul baadu baadan fi ximaayatihi walam yazal jaaziran izaaka ifraada nee lor gu taalibe yi lorante seen biir nee ne loolu dafay nekk ci kaaraange Mawlaay Ahmad Tijaani te Cheikhu Tijaani loolu dañoon na dañul woon chaque si jajj taalibe yi suñu bañ a lor seen mbokki taalibe kon itamit loolu e, tabarakallahu ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokku daara yépp e, yonent bi neeni kep ku mana jariñ sa mbokk rek nang ko jari kep ku mana jariñ sa mbokk ah noko mana jariñe nang ko jariñ na mbokk mi nga bokkal diine na ngeen bokk tariqa bi benen bi ci top yi tamit di charte bu am solo moy yow talibe bi moy an yu'azzima jami'al awliya li annahum ahbabullah mom moy nga màggal mbollem nitu yalla yi kep ko xam ni nitu yalla la rek cër ba mu am ci yalla yow en tant que talibé nga jox ko kon lolu yi charte bu ama am solo la mom moy yow bo doné talibé cheikh don talibé cheikh bu mat bu dëggu kep ko xam ni nitu yalla la rek cëram dang ko koy jox parce que gis nga loolu daf lay dimbali ci lu bari mooy yàlla moo yor ay cëram di ko joxe képp koo xam ne ni nag yàlla jox na ko cër nangul naa ko ko li waral loolu alquran nee nañu ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñi nga xam ne ni ñoom ñooy wàllu yu yàlla yi amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy jaxale te yonent bi nee képp koo xam ne ni lor na kenn ci samay wàllu yu ci walu yalla yi yonent bi neene man mako déclarer déclaré guerre yawmal qiyaam kon yow bu fekke ne da nga nekk tijaan da ngay respecter ki nga xamne ni mom moy di ki nga xamne ni mom dafa top dafa gëm mawlaya tabarakallahu sirin tuba. bu fekke ne da nga top da nga nekk tijaan da ngay gëm ki nga xamne ni mom moy respecter ku gëm tamit benen tariqa parce que mawlaya sëriñ tuuba radiyallahu taala anhu waxna ci téeréem ba nee bépp wird woo xam ne ni nit ki dana ko wird te wird woowu di ko jokkal ca yàlla moo xam mu ngi ci Seexu Tijaan yi moo xam mu ngi mu ci Sidi Abdul Qadir Jeylaani ah ci keneen kudul ñoom ñaar taxte ka ñoom ñépp ci yiw lañu nekk ci njub lañu nekk wa kullu wirdin yuridul murida لخضرة الله ولن يحيده سواء انتمى إلى الجيلان أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب kon gis nga loolu cheikhul xadim jàngale foofu mu am solo lool mooy képp koo xam ne ni yor na wér daam yor na sëriñam rek fonkal ko sëriñam waaye nag jàppal sa sëriñ loolu la ibrahima rayaxi wax nee ne sadaqtu kullu waliyin raiyan qadrahu bi ayni ixtiraami gayra anna mawlaay ahmad tijaani huwa malazi wa umdati wa imaami loolu nag ku nekk sañ na ko képp koo xam ne nii nitu yàlla nga rek nangul nañ la sa cër waaye nimit nangu nañ ne ñun suñu sëriñ mooy mawlaay ahmad tijaani kon loolu tabarakallahu ñu ngi koy bàyyiloo xel taalibe yépp ndaxte ko koo xeeb sëriñam mu xeeb sa sëriñ kon nag màggalal ñëpp fonkal ñëpp respectel ñëpp waaye hmm. nag tabarakallahu doy lol li nga xam ne ni moom la la mawlaay ahmad tijaani jàngal beneen bi topp te mooy fukkeelu charte bi ak ñaar mooy an yatawaddada ila al xalq la siyama ixwaanuhu fi tariqa moom moo di mu ñeewante mbindeef yi yépp te bañ a dogante ak ay ak rawatina muy dogoo ak ki nga xam ne ni ñoom ñooy ay mbokkam ci tariqa bi aw léeg-léeg xam nga dafay bari ci daayira yi nit rek nekk ci daayira am lu la metti nga jékki-jékki rek nga dem toog wala nga bàyyi wala nga ne man bokkatuma cheikh nee ne déedéet amal cofeel sa digganteex sa mbokk taalibe nene bul dogoo ak ñoom kenn si jullit yi bul dogoo ak moom parce que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ñaar ñoo xam ne nii dañu juyoo dañu xuloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee xuloo boobu su matee ñetti fan sunu borom dafay raser seeni dossier teg ko nele ne ñiy tegal leen ma fële seeni dossier ba ker ñu yeewanoowaat loo jaamooti yàlla du yéeg loo ñaan yàlla du yéeg ndaxte galan danga nga dogoo ak sa mbokk bu fekkee ni nag sa mbokk ci tariqa bi nag moo gën a te doy war moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu ñu jàngal mooy boo bëggee am jàmm ci mbooloo mi ñu laaj ka nan ngay def yonent bi nee ne silman képp koo xam ne nii dog na la rek yow taalibe bi nanga ko jokk muy benn wa ahsin ila man asa ilayk képp koo xam ne nii dafay ñaawal di jëme ci yow yow de rafetal di jëme si moom waxul lil xaq walaw ala nafsik bu la dëgg dabee yi tamit nanga nangu dëgg googu parce que dëggu du wax dëgg rek mais dëgg piir moom dëggu piir moom mooy nangu dëgg xam nga bari na ñoo xam ne nii tey boo waxee ñu ne ñoom dañu dëggu mais bu boo leen waxee dëgg rek ñu gis seen bopp moo tax yonent bi nee na waxulil xaq walaw ala nafsi boo nekkee ci mbooloo nekk ci daayira bi yonent bi nee ñett yi bàyyi ko xel képp koo xam ne nii dog na la ko jog képp ku ñaawal ci yow de rafetal jëme ci moom beneen bi ci topp na ngay wax dëgg donte que dëgg gi dafa dal ci sa kaw bu fekkee ne tamit yaa ñàkk dëgg tamit nga nangu ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na ne li nga xam ne ni moom moo di njombaxtalu mbir yi gannaaw gëm yàlla moom mooy soppante yéen ñi nga xam ne ni yéenay mbindeef yi te tamit ngay jëflante mbaax si képp koo xam ne ni ku baax la ak ku safaanoo ndaxte ka yonent bi nee ne ñi nga xam ne ni ñoom ñoo saxoo mbaax fii ci àddine yàlla nee ne ñoom rek ñoom ñoo jagoo mbaax ëllëg ci kanamu sunu borom yal nañu ci yàlla boole malik nee ne jaaduna ama allazi xoqa ala almuridi aazana allahu min almarid moolaay seen xaaji malik nee ne lépp li nga xam ne ni moom moo jaadu ci taalibe bi ñaan nañu yàlla mu muccal ñu ci ak fetteerlu ci mbooleem ñi nga xam ne ni ñooy sunuy mbokk ci tariqa bi ñu laaj ka ban tariqa mu ne tariqa bi nga xam ne nii mooy muccel ci sawara moom mooy bëggante boo xam ne nii da ngeen di bëggante bëggante goo xam ne nii ah tabarakallahu li nga gën a bëgg sax sa mbokku taalibi su ko soxlawee nga jox ko ko te ñàkk te moom mooy al kon loolu ah, lañu mawlaay Seexul xaj Malik dénk ca téeréem boobu di fakihatu tullaab beneen charte bi te moom mooy chartu fukkeel bi ak euh, ñett moom mooy nga bañ képp koo xam ne ni bañ na Seexu Tijaani te bañ gi sax dafay àgg tabaarakallahu bañ sax di toog ak moom waaye tamit nga bëgg képp koo xam ne ni bëgg na Seexu Tijaani te kooku nga jàppe ko xarit moo tax ku bañ cheikh rek yow taalibe bi amatoo looy seq ak moom parce que bañeel gi mu bañ cheikh tegu ko fen lu dul ci bakken wala ci noono kooku nag yow taalibe bu fekkee ne da ngay toog ak moom la koy dal daf lay dal te loolu la cheikh di dal loolu loolu la la cheikh di moytuloo cheikh ni yeneen cheikh euh, Mawlaay nee ne inna mujalasa mubghidina summun yasri nee na képp koo xam ne dafay toogax ku bañ cheikh nee na tooke la joo xam ne ni day yol bés booy bañ cheikh doo ko yëg parce que danañu dana toog wax ci cheikhu Tidiane yi loo xam ne ni safaan la yow nga toog doon taalibe cheikh manuloo si dara tabarakallahu nee na dégg góog nga koy dégg loolu tooke lay doon ci yow ah Seydi Xaaji Malik ibnu Baaba nee ne waman yujaalis mubxida cheikh xalak wa dalla fi mahaamihi wa fi xalak nee képp koo xam ne nii tabaarakallahu mu ngi toogax noonu cheikhu tijaani kooku dafay alku te tamit dafay sànku ci li nga xam ne nii mooy ay mbër ay ay ay bëgg te kooku si ay lëndëm rek lay nekk moo tax daal booy àndal da ngay andal ko xamne ni bok pass pas wala respecte na pas-pasam nga respecte sa pas-pas nee koku mom moy ki nga xamne ni mom moy ki ñu wara andal benen bi tamit moy fukkeelu charte bi ak ñent moy nga am pas pass yow talibé bi te jébal sa bop ci lepp lo xamne ni dafa bàyyeekoo ci cheikhu tiijaan yi radiallahu taala anhu te loolu mu jural la ak cofeel ci moom loo xam ne ni daf lay yéegal yow taalibe bi parce que ki nga xam ne ni mooy taalibe yi tamit lépp loo xam ne ni dafa bàyyeekoo ci cheikhu tiijaan yi rek bu boobaa daf ko war a nangu daf ko war a topp daf ko war a charte bi nga xam ne nii mooy charte fukkeel bi ak juróom ci yéen ñi ñuy topp ñu ci charte bi ak juróom te charte boobu mooy an la yantaqida ala cheikh fi jami aqwalihi wa afalihi moy mu bañ a diingat wala mu bañ weddi lenn ci wax dañu ko bàyyee dañ ne wax ji mu ngi bàyyeekoo ci mawlaaya ahmad tijaani radiallahu taala anhu ndaxte ke yi tamit boo toppee mawlaaya ahmad tijaani muy nitu yàlla boo xam ne ni yàlla jox na ko cër yépp mu àgg foo àggul xam loo xamul yàlla may ka lu mu la mayul ba nga doyloo ko kon lépp loo xam ne ni wax nañ ko ne cheikh moko ko wax ñu nattaka ci alquran ak sunna yow bu boba lolu amo ci def amo ci dindi parce que bu ñu xolé gis nga euh, ci alquran sax yent yalla Musa kérok ba mu andé ak hadir xam nga lan la ka wax fa in fala tasalanni an shay'in hatta uxdisa laka minhu zikra bu fekkee ne nangu nga ànd ak man daal charte bi moom mooy bul ma laaj lan li may def lu tax ma koy def yow daal topp ma boo bëggee jariñu kon loolu tamit lañuy xaar ci li nga xam ne ni moom di taalibe bu man doon charte bu fukkeel bi ak juróom benn te moom mooy taalibe bi nga bañ a wóolu njuyu sunu borom bañ a wóolu njuyu suñu borom waaw te ndëg ci benn mbir ndëg ci mbir yi parce que yenent bi alquran moo nañu ah, ah, ndax da di wóolu njuyu yàlla kenn du wóolu njuyu yàlla lu dul nit koo xam ne ni nditu ku nara a perte nga moo tax bokk na ci wax ji nga xam ne nii moom la Mawlaay Ahmad Tijaani daan wax lu bari ana wax ne wa aminun makrallahi billahi jahilu wa xaaifun makrallahi billahi aarifu ah Cheikhu Tijaani bokk na ci waxam yi siiw mooy képp koo xam ne nii wóolu na njuyu sunu boroom tabarakallahu kooku rek kooku ku réer la waaye képp koo xam ne ni ragal na njuyu sunu boroom nee kooku rek moom moo xam yàlla kon yàlla boo ko xamee doo ko wóolu ba mu ëpp ne rek tabarakallahu ah, ah charte yi garanti yi ñoom ko léegi tiijaan moom léegi lu la neex nga def comme ñu bari li ko taalibe yi waxee garanti yaa ngi fi cheikh nee ne ba tax li nga war a taxawe doo ko taxawe cheikh Nene bo ci nekké bala ngay faatu danañ la rekki ci tariqa bi rekki la ci l'islam nga dewe ak kéefër yalla na yalla boole musul ñu ci ñun ak yeen ñep benen bi ci top yi tamit mom modi nga baña solo ku bokul ci tariqa bi li nga xam ni moy sew-sewu tariqa bi ak deug deug parce que yow ko dara koo xam ne nii bokkul ci tariqa bi bokkul ci wird wi intéressé ko kooku wax dëgg yàlla ah di ko ko solo wala di ko ko xamal cheikh nee ne loolu daana ko nee jaaduwul ndaxte que dafa bokk ci charte yi nga xam ne nii moom moo di sertu tariqa bi ah tabarakallahu ndaxte que wird yi tamit ñun ñëpp xam nañ ne ay ay ay ay lay doon ay secret lay doon yoo xam ne ni ña nekk ci biir tariqa bi rekk ñoom ñoo war a am secret yooyu ñoom ñoo ko war a xam kon loolu ñu bàyyi ko xel beneen bi tamit bokk na ci charte yi mooy mu bañ a doyadal wird wi wala mu koy yeexe ci ba waxtu wird wi paase lu dul ne ngant dafa am boobu nag wax dëgg yàlla nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax mooy werd wi comme yow yaa ko jël boo ko jëlee nag waruloo doyadal werd wi waruloo yeexe werd wi ba waxtoom paase lu dul ne ngànt dafa am sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu nee ne laazim lawazimahu takfi li taalibiha min almanafii fi dunya wa uxra nee na yow tax xoolax wir du mawlaay ahmad tijaani te ndëk lawazim yi mooy wérdu moom mooy xadaratul juma mooy wazifa kon bu ñu waxee laazim ci tariqa bi rek ñent yi la ñett yi bokk Sidi Xaaji Malik nee wala sëñ Babacar si nee na boo taxoox ñett yi nee doy na la ak njariñ addina ak àlaxira radiallahu taala anhu kon foofu yi tamit ah tabarakallahu e, nañ ci taxawaat bu baax a baax si li nga xam ne ni moom di fonk wird wi toppatoo wird wi bañ doyadal werdu wi comme yow yaa ko jël beneen bi ci topp te mooy bu fukk bi ak juróom-ñeent moom mooy mu bañ a doon boroom fit moo xam ne ni dafay joxe werdu Mawlaay Ahmad Tijaani bi te amu ci benn ndigal wala muy def werd wi te amu ci benn ndigal loolu nag li mu koy jural nag mooy taalibe bi mooy mujj gu ñaaw la koy jural comme ni ko Seydil Xaaji Malik waxee képp koo xam ne nii nee ne dafay joxe tarixa Mawlaay Ahmad Tijaani bi te amoon ndigalu joxe ko ah danga nga bëgg a doon ab sëriñ rek waaye yow daanaka doonuloo muqaddam amuloo benn cër wala ñu lay tudde kilifa ba tax nit ñëw nga jox ko wird wi te yow doonul amuloo mën a joxe wird cheikhul xaaji malik nee ne ki koy def yàlla dana ko nattu mucc gu ñaaw loolu nag yàlla na yàlla musal ci musal leen ci ah tabarakallahu eh, beneen bi te moom mooy ñaar fukkeelu bi bi nga xam ne ni moom lañu waxoon ne mooy charte yi nga xam ne dafay dellu ci charte yi nga xam ne dafay mat te wekku ci jëmma ji nga xam ne dafa wax ne taalibe cheikh la moom mooy mu bañ a jëfandikoo moom taalibe bi li ñuy tuddee cigarette maanaam taalibe du jëfandikoo lu ñuy tudde pon loolu nag charte la ci cheikh mawla ci tariqa mawlaay ahmad at tijaani taala anhu ndaxte la ca nekk ci ay tabarakallahu ci yàq alal te alquran moom moo ñu waxoon ne wala tubazir tabzira ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا rabbihi تبارك الله tabarakallahu كي يخ على لم mbokku شيطان له waaye ki yàq alalam tamit di yàqaale santem di yàqaale wéram kooku damay laaj mbokk kan lay doon kon yi tamit jëfandikoo cigarette moom bokkul ci li nga xam ne ni moom bokkul su suñu tarixa tarixa Cheikhu Tijaan yi Seydi Xaaji Malik gis nga Sëriñ Babacar Si am na benn waay boo xam ne doon na jël ca tarixa bi ci moom bi muy jël si tariqa bi ci moom mawlaay sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu waa ji dafa jël li nga xam ne ni mooy paquetu cigarette bi dem lax ko ca gannaaw e, tabarakallahu ëkku ëkk ga bi mu ñëwee góor gi ñaanal ko ak teggin nga ndeysaan radiyallahu taala anhu ba jox ko tariqa bi nag mu siggi mu xool ko mu xool ko sëriñ Babacar si ne ko boo demee la nga lakh sa gannaaw ëkk ga boo demee nga bàyyi ka bokk ci radiyallahu taala anhu sidi xaaji malik ndëg moom am na benn waay joo xam sax mas na ñëw ne ko mawdo dama bëgg nga alma alimet ma taal mawdo ne ko lan ngay doy alimet ji mu ne ko dama si taal cigarette sidi xaaji malik sidi xaaji malik ne ko am alimet de waaye awma alimet juy taal cigarette te bu ma la joxee sama alimet nga taal ci sa sigaret bu boobaa tabaarakallahu bakkaar boobu man dama ci am tabaarakallahu eh, kon loolu Sidi Xaaj Malik nene li tax mu bon moom cigarette batax tariqa bi sibu ko ba tax Cheikhu Tijaani tere ko ay taalibeem nee ne képp koo xam ne nii dafay tux cigarette Mawlaay Sidi Xaaj Maalik nee na képp koo xam ne dafay tux cigarette ba faatu nee na kooku day bés bu faatoo buñ ko jubalee ci penku yàlla bi bu ñu doxee juróom ñaari jéego bu ñu ñëwee bu ñu ko solle bu ñu ko bu ñu ko nañu nañu bu ñu ko dindee dañuy fekk ñu ëlbatiwaat ko kenn du ko jublul penku Sidi Xaaj Maalik nee ne man maata waxuwa sharibun li taaba yastadbirul qiblata naam wa taaba duñ doo jublu penku doo jublu medinatul munawwar waaye feneen lañ lay jubluwaat ndax lan ndax cigarette sa nga doon jëfandikoo moo tax mbir la moo xam ne ni tariqa bi mayew ko fenn ndëk mayew ko ci lenn ndëk radiyallahu taala anhu pour nga xam ne nii moom cigarette magu Sénégal yëpp wax nañu ci eh, ki nga xam ne nii moom mooy Ah, Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu am na benn shérif boo xam ne ni mas na ñëw ci moom ah, tabarakallahu fekk ko rek muy def tafsiru qur'aanam mu ñëw rek jël sigaretam di jëfandikoo waaw naa ne yéen tijaan yi bari affaire trop mais góor gi comme jàngalekat lay def bu mu paree mu laaj addiya moom shérif bi bi muy laaj addiya eh, góor yi ñoom comme dañu fonkoon nitu yàlla yëpp mu ne ko andi leen addiya yi ñu dajaleel ko addiya waaye keroog gis nga góor gi Cheikh Ibrahim li mu ko wax mooy gis nga de yey naa la te awma benn aaya mooy laaj nga addiya addiya lu ne ñëw na fi waaye day cigarette si nga yor de ñëwu fi parce que ñuy dëkk bi kenn du ko fi jëfandikoo moo tax moom demoon na ba jamonoom ci ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ki nga xam ne ni xam nañ ne dafa daan day jëfandikoo cigarette sax lépp loo xam ne ni mooy wàllu bagaa sax lu nekk rek da kay du nangu bokk ak moom cheikhul xadim radiallahu taala anhu bind na ñaar fukki jikko yoo xam ne ni dafay jur wow ak xol nee na ku koy jëfandikoo sa xol dafay wow si ñaar fukki jikko yooyu nee ne tudd na si moom Serigne Touba maanaam ki nga xam ne nii dafay toogax kuy jëfandikoo cigarette waxul kuy kuy kuy tux cigarette de yow nga koy tux mais ngay toogax kuy jëfandikoo cigarette Cheikhul Xadim nee na yow sa xol dafay wow léegi moom xolam nu muy mel moom suñu góor gu tëdd gi eh, tabarakallahu seydina limaamu daana wax ne man limaamu day xam nga ban taalibe moo ma jaaxal talibe bi nga xam ne nii bi mu faatoo daawul jëfandikoo cigarette de bi mu faatoo ñi fi bàyyi sàggan nañu ba ku daan jëfandikoo cigarette tee si jaagam kooku man jaaxal na ma kon mbir mi buñ ko woyofalee tamit woyoful wax dëgg yàlla moo tax mag ñépp wax nañ ci waaye Seexu Tijaani daal moom loolu moom mooy ñaar fukki charte yi nga xam ne ni mooy charte yi nga xam ne moom moom moo wékku ci ki ñuy tudde taalibe bu bëggee mat ñaar fukki charte yiñ fi tudde yooyu naka mottali xam naa ne tabarakallahu suñu waree continuer waat yi ci des tabarakallahu lépp rek si yéen lay aju kon nag tabarakallah kon ñu ngi taxaw ci ñaar fukki chat yoy mu desaat yeneen ñaar fukki chat inshallah <laughs> ñu ngi leen di wat yaara di la wat kaddu gi señ tabarakallah abdu kon mu ngi non yalla na yalla defal ñu tawfiq alaykum wa rahmatullah señ pap wa alaykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuh euh cheikh moussa tabarakallah bind bi am na solo lool boo gisee boobu léegi maa ngi maa ki gis nga maa ngi jël note. dëgg dëgg dëgg dëgg. dafa naa yaa ngi sama note yi ah. ndeysaan ngi koy gis ñu ngi koy gis. waaw fa tabaarakallaahu am na solo te leer na. Mm-hmm. xam na du ñàkk mbokki taalibe yi. fa mm-hmm. tabaarakallaahu dinañu dugg ci ligne bi. jotale seeni laaj am na ñoo xam ne ci laaj yi tamit ci ñun ni lañ koy jaarale wala suñu fii ci suñu studio daalul habib bi nekk ci baltimore ci maryland mooy dëkk bi ma nekk nii wala boog ñu jaarale ko ci suñu mbokk pap Kébé bi nga xam ne moom mi ci beneen pegg bi ci amérique ci dëkk bu tudd boston boston wante waa alhamdulilah yàlla na yàlla suñu borom subhanahu wa taala boole bindal nu yoolu ziar gannaaw bi nañ ko delloo xam naa oh. kii sëñ Pape dafa mel ni bind yi am na solo mhm. ñaar fukki charte ñëw na foofu mhm. pour ki nga xamante ni nii dafa bëgg sobu sóobu ci ci yoonu Tijaan mhm. war na góorgóorlu ci ñaar fukki charte yi te am na yeneen ñaar fukki charte yu ñëw wante sëñ Pape ba tey waa euh, kii administration sànq woote woon nañ fii di wax ne eh, ñoo ngi lay gërëm di la sant si ni nga présenté Ibra fan bi di ñaan mbokk yëpp ñu gën ci inscrire mhm. ndaxte Ibra fan bi ci boppam mhm. dina dina jàppale mbokk julit yëpp mhm. ndaxte islam xam nañu lim ñu sant ci néew julit bi ñu sang ko ko toppatoo ko yóbbu ko ci ay bokkam ñu mm. suul ko ki mm. xam ñu nag moom bokk la ñu diine kooku yàlla suñu borom subhanahu wa taala waxuñu ñu def ko noonu mm. wante dafa bëgg ñu yéwénal suñu diggante ak moom rek luñ leen ñoom bu ñu yoree seen néew ñun duñ ci mën dara xanaa luñ leen mën a euh, jàppale rek ci wàllu passion ak yooyu wante ñoom dañ leen di bàyyi ñu toppatoo seen néew bopp ñun nag suñu fon bi ñu toppatoo suñuy néew xam naa ni euh, euh, jërëjëf ci leeral boobu ñu ci woote di ko di ko indi sànq wante tamit sëñ Pape Kébé am na ko fu woote sànq xam naa ko dafa doon sama benn mbokk sise sise nee na moom dafay faral léeg-léeg bu jullee gee ba pare danaan naa dallu tuuti bu ma jógaatee E, e, doog naa fi la julli safaak witr mhm. nee na keroog nag dafa mel dafa xaw a biddanti ba muy jóg mhm. Mhm. fekk e, maanaam daanaka bë bët set na parce que noot nañu fajar ba pare ba suba gi dugg mu foofu dafa dégg nga ni dafay fay safaak witr jàng jawratul kamal wala mhm. dafay dabaatal rek joxe jawratul kamal bi mu remplacer ñetti jawratul kamal yi mu remplacer safa ak witir sëñ Pape Kébé loolu daal moo fi ñëwoon moo fi ci wàllu laaj am mbok mu bëgg leer leerlu loolu xam naa bu ko Cheikh Moussa Cheikh mën a leeral. incha allah. waaw. waaw fa tabaarakallaahu kon ñu leeral loolu door a jox sëñ Pape tabaarakallaahu. Mhm. Eh, kooku day mooy li ñu waxoon sànq rek eh, comme. daf ko faat ba waxtu yi hmm. passé waaw boobaa fay safa fay wétr bu fayee nag ba pare day hmm. def juróom fukki jawharatul gi mu jange ko loolu maanaam ñetti jawharatul kamaa waaw mu si lay def ñetti jawharatul kamaa gi hmm. bu fekkee ne tabaarakallaahu faat na ko waaw maanaam da fay ba pare door a door a def door a def koy jange mais du ne jàngi rek lay hmm. def te day fay ba pare def door def li koy jànge hmm. waaw alhamdulilah alhamdulilah kon dafa mel ni dafa mel ni mbokk moomu euh, tontu bi leer na wala wante xam naa ne góorgóorlu rek hmm. boo julee boo julee gee ba pare rek nga góorgóorlu julli safa julli witr boo ci tegee ñetti jaarutul kamal yool bi dafay gën a bari rek bo tëddee nelaw so jagaani ci guddigi sax mën nga hmm. def ñaari rak defe naa hmm. doo ko julli def benn hmm pour clôturer ces ah. julli di lol tamit may nañ ko ah. parce que fofu xam nga yonent bi daf ne la witraani hmm. maanaam witre witre benn yon rek nga ko mën a def manam kenn mo ñaari yon witre moo tax bu la wóor tay ji da ngay eh, da ngay jogaat guddigi waaw man nga yeexal wetter gi mm-hmm. maanaam da ngay jogaat guddi gi pour naafi la man nga ba gi ba nga jogaat guddi gi ba naafi la nga tëje wér parce que bi na ngeen def ijalu akhir salatikum witran na ngeen def julli gi nga xamne moy julli gi tëj seenu julli mu don wetter kon bu da ngay jogaat guddi gi pour naafi la gën nga julli witar mais boo jógee naafila nag ba desul lu dul nga pare si julli gi bu mhm. boobaa nag nga ko sa wittar tabaarakallaahu ah. alhamdulilah loolu moom loolu moom moo gën parce que loolu moom mooy loolu la ñu yonent bi jàngal sallallahu alayhi kon tamit foofu suñu maam Cheikh El Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu euh, mu fonk ñaari rakk ginnaaw timis bu demee ba xat mu wecce ko juróom fukki jaaratul kamal eh, juróom fukki salaatul fatih juróom fukki salaatul fatih wala ba nga foofu nga foofu tamit lu jara bàyyi xel la nga xam ne eh, tabaarakallahu moom dafa waroon a julli ñaari rakki timis ba nga xam ne fi mu toll nii mu xat ba mu paase. waaw wax paase. kooku mhm. boobaa daf koy jàngee rek li mu koy jàngee rek moom mooy juróom fukki fatih Mm. moom noonu moom noonu moom moom noonu koy noonu la koy defee kon euh, ñaari rakk yi ginnaaw timis ñaari rakk yooyu tuyaa ba ji dafa bëri ndax juróom fukki dara salaatul faatihi loolu nu mu toll ci yool kenn xamu ko ah salaatu salaatul faatihi rek Sidi Xaaj Maalik nee na su ma ko yàlla nangu su ma wóoroon yàlla nangul na ma benn ba <laughs> ma noppaloo ko kon nag ku def juróom kon xam nga ne kon la muy remplacer rëy na lool waaw rëy na lool waxtu la woo xam ne waxtu wu doy waar la moo tax sëñ xaaj ma boo jullee timis lu mu gàtt gàtt nga naafile ñaari rakk waaw lu mu gàtt gàtt ñaari rakk mu ñaari rakk moo gën a néew am na ñuy def sax ba juróom benn hmm. bu xatee nag nga weccee ko salaatul fatihi xat bu nga weccee ko salaatul fatihi juróom fukk hmm, alhamdulilah rabbil alamin gis nga suñu maam Cheikh Alhaji radiallahu taala anhu moom du tàyyi te moom tamit euh, du yokkat foo ko fekk rek mi ngi euh, xëcc taalibe bi di ko teg ci yoonu yoonu wut yiw yoonu wut euh, wut tuyaaba wut wut yi wut tuyaaba wallaay waaw daal si daal yàlla na ko yàlla si borom subhanahu wa ni mm-hmm. am ay laaj yu ñëw ñu bàyyi la nga indi ko. waaw jërë jërëjëf xaaj xanaa mbokk bi dafay laajte rek. waaw ah, yow sas nga. Eh, eh, eh, si si charte yi lan lañ ci wax ci kuy ci kuy toog di di def di wedd. di werd. waaw. maanaam ci maanaam ci li jëm ci mbirum dal bi. na mm. na nga koy waxe ndax xam nga sànq yaa ngi si sa wax maa ngi dégg bi ngay wax li ñuy tuddee julli cof-cof olof jaay def naa loolu la ko tuddee suma suma juumule ndax kiy wedd charte charte tere terewu ko mu ti it mu def ko euh, weddu sàcc kii bi sàcc weddu ndax léeg-léeg nga gis yenn mbokk yoo xamante ne xam naa xam naa loolu tax kurus gi dafa mel ni que par ñeent la ñuy tëb da ngay da ngay gis ku ku toog rek daal di wasi fa dix minutes jóg nga ne ko waa sëñ bi benn jawatu kama def ko noonu eh, xanaa trente secondes maanaam ci dal bi mhm. mu ne loolu lu lu charte yi am na lum ci wax am na lum ci wax waa dal gi dal gi lépp parce que loolu moom loolu moom li nga xam ne dafa bokk loolu muy laaj noonu dafa bokk juróom si charte yi muy juróom-ñaari charte yi nga xam ne nii dafay wékku ci werde wi mooy juróom-ñaari charte ci topp mm-hmm. mooy nga xam ne nii dafay werde dañuy sàkku si dañuy day doon farat ci moom mu dal dal gi tamit du yam ci dal gi rek mu jublu penku su manee nekk mu nekk si mm-hmm. place wéet su manee nekk beneen bi tamit muy tudd baat yi te bañ a sàcc baat yi maanaam baat yi tudd ko wér mhm. bañ a wax sawla sawla sawla waaye di wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yaa ngi dégg de mhm. leene baat war a tudd mu mu wér boo nekkee ci laa ilaha illa illa tam noonu laa ilaha illa laa ilaha illa laa ilaha illa déedéet loolu kenn waxu ko ci tariqa bi laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah nga xam ne boobu noonu moom mooy moom mooy defar moo lay defar yow mais laay laay laay laay laay laay laay di nga si tudd te doo defaru ak moo tax yooyu noonu wala mooy li nga xam ne mooy li si topp si si yeneen yi mooy wird wi nan nga mhm. koy mën ba ñu tudd ne wird wi nga def wird wu mat la wu jub la mhm. lu am solo la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi di tudd baat yi tamit comme ni nga xam ne nii mooy parce que tudd baat yi mooy lépp parce que dañu bëgg mu du doon li nga xam ne nii mooy mu bañ a doon tudd boo xam ne nii mm. tudd naa ko wala def naa ko rek déedéet mais def naa ko ci anam biñ ma ko sant loolu la ñu Cheikhul Xaaji Maalik bëgg waaw mais Cheikh Moussa bu fekkee na ngay tudd baat yi loo ciy jublu ndax nit ki boo toogee di wasifa wala ngay laazim mm-hmm. ndax mën nga ko ndax mën nga ko yàlla di ko tudd ci sa ci sa ci sa xel wala di ko kii sa xol noonu wala da nga war a yëngal say di ko tudd ba ba di ko dégg yow ci sa bopp waxam nga bu dee wird dañu bëgg ki nga xam ne mooy tàmbali ki tàmbali wird di xaaj maa nee kii tàmbali wird waaw dañu bëgg maanaam muy tudd baat maanaam tudd gi moom mooy di ko mhm. tudd koo xam ne nii moom boppam la koy dégtal mhm. moom li muy wax mom moo koy dégg moom mi koy wax xaaj Maalik nee na tudd googu mooy zikrul lisaan gis nga boo nekkee dang parce que tariqa bi par étape la par étape dangay ngay nekk si zikrul lisaan da dem ba nga xam ne ni moom mooy boo boo saxee si hmm. tudd googu. nee dafay dem ba nga xam ne nii làmmeñ bi moom mooy jox xol bi zikkar ba nee na bu xol bi comme zikkar nag loolu moom boo tëddee di nelaw yaa ngi zikkar hmm. boo penc ma yaa ngi zikkar hmm. boo newee si jàkka ji yaa ngi zikkar foo mën a nekk parce que xol bi dem na ba am loolu loolu nag bu rëy la balaa ngay àgg ci foofu nag dañu bëgg ngay tudd baat yi di ko tudd tudd boo xam ne ni yow yaa koy déggal sa bopp waaye waxuñu nga koy tudd loo xam ne nii da nga koy biral mhm. waxuñu biral comme yow la sa wird la yow yow yaa mhm. def waaye di ko defi anam boo xam ne nii comme ni ñu ko tudde mooy anam boo xam ne ni bu sell la anam boo xam ne ni maanaam di ko déggal sa bopp loolu dana tax tamit ngay teewlu baat yi gis nga hmm. loolu daa di wax de teewlu maanaaya teewlul Seexu Tijaan hmm. kon jëmma ji neew dama wax laay laay bi ngay tudd astaghfirullah booy tudd baat bi yow sa xel mu ngi teewlu maanaa lan mooy astaghfirullah booy tudd laa ilaha illallah sa xel mu ngi teewlu maanaa laa ilaha illallah booy tudd hmm. salaatul fatix sa xel mu ngi teewlu salaatul fatix loolu moom mooy tax nag nga mën a am wérdu wérdu parce que teewlu gi tamit euh, baat yi dafay am solo lool lool lool lool ah, alhamdulilah euh, sëñ sëñ Pape Kébé am na beneen laaj bu ñëw fii mm-hmm. fii nee na moom kenn ci waajuram yi du jullit mm-hmm. benn waajuram rek mooy jullit mm-hmm. beneen waajuram bu jotul dugg ci diine te dem na wuy ji boromam mu dafa dégg ci sëriñ bi bi muy jàngale mu wax ni birru al waalidayni rafetel rafetal gi ngay rafetal ci ñaari waajur ak rafetal gi nga xam ni moom koy rafetal àq yi dox diggante sa borom sànq da nga ni boo booy julli yaa ngi matal àq yi dox diggante yow jaam bi ak sa borom subhanahu wa taala moo rafetal rafetal ak say waajur bokk na ci boo jullee ba pare boo joxe sa borom li mu moom ba pare nga ñaanal say waajur mu ne nag dañ ko waxoon ni que waajur bi nga xam ni képp koo xam ni bi nga fiy jóge dem sa borom nekkuloo jullit beneen jullit amul droit ñaanal la mu ne loolu daal moo ko xawal lënt ci moo ko jaaxal xam nga ndax mën naa ñaanal waajurum bi nekkul julli tax mën na ko ñaanal jéggal ci yàlla parce que xam nga ki ngay ñaanal jéggal mooy ki atte wàccewul xam nga jullit bi nga xam ne nii jullit la moom mën nañ ko ñaanal njéggal mm-hmm. waaye ki nga xam ne nii moom sunu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ki nga xam ne yonent dafa am benn wax ñëw na ci moom moom yonenti mhm. yow yonenti sama waajur ngiide e tabarakallahu faatu na te moom li dal waajooju moo ko daloon waajooju moom jullit la te mais waajuram yéefar la mhm. ba mu faatoo moom dama bëgg nga julleel ma sama waajur may gis nga yonent bi ngir am cofeel ak ñeewante si njabootam mu bëgg a dem taxaw loolu alquran si boppam moo wàcc ne bul def loolu mukk wala tusalli ala ahadin minhum mata abada képp koo xam ne ni dafa doon koo xam ne ni benn droit ñaanal ko amuloo droit amuloo droit taxaw ci bàmmeelam kon bu fekkee ne dafa doon koo xam ne ni yéefër la moom dee na ci hmm? kéefër ko sa axa mu ngi nekkoon ci àddina àddina moom moo leen boole woon comme nag àddina moom faatu na bu boobaa yow amatoo benn ax pour ñaanal ko ndaxte que loolu yow lislaam gi nga nekk yonent bi nga gëm moom la ko yàlla tere woon te lu yàlla tere yonent bi kon daf koy tere njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw weddi woon yonent bi euh, gëmul yàlla boo fi jógee wax dëgg yàlla kenn mu dem ci yàlla naan ko këla gëmul woon parce que amul connexion gëmuloo ko ki mu gëmul sax kenn loolu loolu ko xool ci wàllu àddina rek wàllu àddina rek amul sax sens quoi amul sens gëw ba ko jógee fi nga dem ci kooku ko baal ko non ah dëgg yàlla ah. Ah, ah. alamin alhamdulilah sëñ Pape. Ah, ah, Haj Pape. waaw mbokk bi de dafay laajte. waaw nee na moom de léeg-léeg buy wedd bu dee dafay xoole ni léeg-léeg eh, kër kër gi xaw a yëngatu rek mu xaw a jaxaso mu ne ndax wedd bi may na ko mu muy gëm pour pour mën a concentré wu bu baax pour mën a pour mën a def weddam aw moom day mu ngi laaj lu am solo maanaam ci teewlu gi maanaam dañu wax ne wér lépp loo xam ne nii daf lay dimbali pour nga mën a teewlu rek loolu baax na masalan ki nga xam ne maanaam buy xool dafay xaw a jaxasoo moom bu gëmmee si lay ëpp concentration kooku gëmma wér da farata la ci moom parce que gi moom mooy indi teewlu gi parce que wér da wi lenn rek lañ ci bëgg a teewlu hmm. di xaaj maa ne walakin jadwa zikri in lam yakun bihi xudurun qalilun wal xuduru qali xali garib nee na nee na bu fekkee ne teewlu amu ci nee na njëriñ lu lu néew la te nee de teewlu gi moo jafe kon lépp loo xam ne dimbali ci nga teewlu rek nee na loolu dañu ci yow nga koy def fa tabaarakallahu moomu yàlla na yàlla fay ko yiw te nangul ko allah allahumma amiin mais mais sëñ xanaa teewlu boobu pour pour mu gën yomb dafa am da ngay toog boo gëmmee dafa am looy jéem a indi sax xel da ngay jéem a indi euh, yonent bi da ngay jéem a indi mais wante yonent bi sax mënuñu ko indi parce que li ngay indi da ngay xam nu mel da ngay indi Cheikh wala da ngay indi sa sëriñ wala ndax Cheikh El Hadj wax nañu yonent bi nu mel wala wax nañu Cheikh nu mu mel pour ñu mën ko indi Cheikh Moussa ndax ndax loolu Maam Maodo defal nañu ko si Xaaj Malik wax nañu lépp wax nañu ni yonent bi mel sallallahu alayhi wa sallam ma jàngee kuréy boobu di xilaasu zahab fi xirat xayril arab waaw ma dëgg jàng lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax damay wax ne ñun ñun ñun ñun ñun yoonu Cheikhul Xaaji Malik ñun kenn duñu jàngal yonent bi kenn duñu wax ne nii la yonent bi mel parce que Cheikhul mm-hmm. Xaaji Malik jàngal nañu ko ba mu leer nañ noonu la ñuy jàngalee Cheikhuna Tijaani radiyallahu taala an moo tax loolu nga loolu nga wax noonu lu am solo la daf ne maanaam cër bii gën a rëy ci kii wérd moom mooy lu jëmmi bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy loolu mooy maqaama bi gën a kawe manuloo mhm. teewlu jëmmi yonent bi nee na nga jëmmi Cheikhu Tijaani étape bi cheikh nu mel cheikh cheikh Mamadou wax na ko naka la mel def décrire na ko. cheikhu Tidiane waaw comme ni yonent bi rek. Mm-hmm, mm-hmm. waaw waaw. waaw guddul woon lool gàttul woon lool. nekkoon ci di xeereerul tabaarakallaahu lii ni ko cheikhul xaaji Maalik nekk doonoon koo xam ne nii ku teey la. Mm-hmm. tabaarakallaahu wax wax wax wax ji yëngutu woon moom cheikhu Tidiane radiyallaahu taala ba pare itam. doonoon koo xam ne nii maanaam cëri cër cëram ya dafa matoon lool moom Cheikhu Tidiane mm-hmm. tabarakallah ah, doonoon ni koo xam ne nii yorul woon biir boo xam ne biir bu rëy la mais biir bi dafa yamoon a ah, loolu si bale jàngal nañu ko bët ba weex tàll la ca war weex sa tàll la war a ñuul ñuul kukk moom mm-hmm. radiyallahu taala anhu waaw nee yooyu nag moom ngay teewlu waaw boo nga teewlu maanaa si kar bi mooy troisième étape bi mooy boobu ñu wax maanaam hmm. kon maqaama bu njëkk bi mooy da ngay teewlu jëmmi yonent bi hmm. maqaama bi boo ko mënul nga teewlu jëmmi Cheikhu Tidiane ah. maqaama bu ñetteel bi nag boo ko mënul nag nga mën a nga bëgg nga nga teewlu maana zikkar yi maanaam laa ilaha illaa bi ngay wax mooy lan nga jéem a ah. teewlu laa ilallah astaghfirullah bi mën ko teewlu salaatul melokaanu yonent baa ngi noonu boo jàngee jawharatul kamal rek xam melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, kon yooyu kon yooyu la indi loolu la euh, Maolana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif indi ci zikir bi maanaam istighfar mm-hmm. la ilaha salaatu aw ah, ak salaatu ala nabi bon salaatu mais loolu loolu daf ko daf ko wutal daf ko wutal ay lim maanaam joxe wu ko noonu rek dafa am lim yu ñu ko war a def. Mm-hmm. Ah, parce que bo xoolee salaatul fatihi boo xoolee wird. waaw wird euh, ñetti téeméer la. ñetti téeméer. astafurlah téeméer. waaw nga xam moom mooy euh, la salaatul fatihi téeméer. waaw. Euh, la ilaha illallah téeméer. waaw. am nga téeméer boobu moom mooy daw ci baat bi alquran wax ne radiya radiallahu anhu wa radu anhu mhm, zalika liman xashiya rabbu ngërëmu yàlla waaw boo ko boo ko déchiffre trois cent la lay jox ngërëmu yàlla waaw mhm. deux cent waaw quatre-vingt-dix la yaa ngi deux cent bu fekkee quatre rasul mën naa ñëw si wasifa yi tamit incha allah ci ñu déchiffrer ko pour ñu xam maanaam tabarakallahu ban taxawaay la am ci tariqa mawlaay ahmad tijaan yi bismillah wax ci wasifa yi xool li jiitu mooy ngay def astaghfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nga def ko fanweer loolu yëpp nag cheikhu cheikhu tijaani daf ko tënk rek ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam allaha wa malaikatuhu yusalluna ala baatu annabi boobu moom la cheikh jël annabi annabi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa mooy sa wasifa bi ngay wasif waaw jëlal annabi alifi mooy astaghfirullah azim alladi la ilaha huwa alxayi alqadim lam gi moom mi trente laam trente la. nun bi gi mo stop nun cinquante la moy astaghfirullah nun gi ko shadda nun nag bok ko da day don ñaari 50 muy 100 moy la ilaha illallah mu bi ba yaa gis la muy douze muy jawharatul kamal annabi al na yàlla fayal ñu Cheikhu kon léegi boo dee wasifa da ngay ridan nabi ah, ridan allah waaye xaaj baab waaw la béyk tamit damay euh, ci charte yi xam nga lim diggante taalibe bi ak sëriñ wala taalibe bi ak wasila waaw waaye oustaz ñun fii ñu nekk ci États-Unis ah da ngay xool xadara yi ñu ngi ci dëkk bu ne wallaay ah sa wasila dina la sori lool loolu bu ko defee hmm. lan la taalibe bi lam la taalibe bi war a def pour def naka ah, euh, li li li tarixa bi wax la mooy rôle bu fekkee ne dëkkuwaay wi dafa sori lool lool lool lool bu boobaa moom taalibe bi moom maanaam sori sori wasilaam ak jege wasilaam loolu amul benn amul benn charte mm-hmm. xam moom lan moo ko tënk li mm. tënk sëriñ moom moo tënk taalibe bi xam nga tarixa mm. cheikhu looloo am solo Mm-hmm. mooy yax sa sëriñ yéen a bokk lu leen tënk mooy charte yi mm-hmm. même sëriñ bu demoon ba baatu tamit charte yi nekk mm-hmm. cheikh yi ko na in maata cheikhukum ma maata chartukum nee bu fekkee ne seen sëriñ faatu na tamit charte bu fekkee ne jokkuwaay la sa sa borom mais moom même bula sore li ñu bëgg ci yow mooy nga tënku ci sarti boo xasee mm. ba tënk mu mën a nekk yow tiijaan nga mm-hmm. Mm-hmm. kon charte yi moom mooy condition yi nga ku ci condition yooyu ak fu sëriñ bi mën a nekk ak fu mu mm. mën ki bëgg rek moom mooy li siri xaaj ma li li li sëñ Babacar si wax laazim laazima mm-hmm. takfi li taalibiha min al manafii fi dunya wa oxrahu kon daal taalibe bi da waral waru def naka sudul non bu de bu déggee wasilaam ma ngay ñëw rek mu bëgg def def defaraat toogaay kon dafa hmm. war a dafa wara sax ci defar toogaay wala ci la wara nek nekk bu nek waaw parce que moy moy hmm. li Cheikh hadji Malik doon wax manam def len te yalla tax baña def pour diwu tax parce que bari na hmm. ñoo xamné ni balaa ñuy mën a wane yitte wane kii rek sëriñ bi teew bi demee tabaarakallah ñu dellu sañ la ñu nekkoon si loolu loolu nag moom du loolu moom du taalibe parce que sëriñ bi kër si yàlla la sant yàlla la sant moo tax ay ay nekk fi waaye ay mbokki taalibe rek fi taje Mm, benn mm, si mm. moom dafa doon ku jiitu si tariqa bi waaye taalibe si tariqa bi looloo tax ñun suñu tariqoor yi même Cheikhu Tijaan si tariqa bi mooy taalibe yonent bi ñun ñuy taalibe cheikh taalibe cheikh macha allah macha allah xam naa eh, sëñ Pape dafa mel ni li ñu amoon ci waxtu dafa mel ni juróomi minute moo ci des xam naa dañ lay bala ñuy jox Cheikh Moussa seen mu joxe kàddu mi mujj suñ pap dañ lay delloo kàddu gi rek pour deux trois minutes nga fàttaliwaat njàngale alquran mi yan bis la ko sëriñ bi jàngale ak mhm. yan heure la koy jàngale ak mu njàng mi rëcc fan nga mën a dem xool ko pour nafar fa daal ci internet bi ndaxte mhm. mbokk ko xamee du fii rek la ci États-Unis du ñu suivre ñoo ñuy suivre ci France ci Europe ci Italie ñoo ñuy suivre ci pays africains yi ñoo ñuy suivre sax ci Angleterre ak feneen ak feneen. ci mm-hmm. àndandoo ñun moo xam ci Zoom bi la am mbokk yi nekk Maroc di àndandoo ñun foofu tamit euh, am na ñoo xam ne ñoo ngi ñun ci Facebook. Mm-hmm. am ñoo xam ne ñoo ngi ñun ci YouTube bi. nga mm-hmm. xam nga loolu lépp rek xarale yu bees yi ñu ànd koog sang bi. wante mm-hmm. tamit dafa lu muy laaj pour daayira bi fondation bi mën a continuer. di jokkoo ak mm-hmm. mbokk yëpp taalibe yi mbokk taalibe yëpp. ñu mën programme yi alxames ci guddi. di mën a def programme yi ajuma ci guddi. ba pare tamit sëriñ bi toog di ci mën di jàngal mbokk taalibe yi waxuma yi nekk ci Amérique bi nekk ci àdduna bi yëpp. képp ku bëgg a rek foo mën na ci àdduna. boo yoree téléphone yore internet rek. mën nga jokkoo surtout Cheikh El mën nga joko direct Cheikh El Hadj Malick bu mhm. jàngal la directement sëñ Pape xam nga loolu ay moyen la laaj waaw waaw waaye waaye Haj Pape maa ngi jéggalu de dafa mel ni mbokk mi Haj Pape ñang bu studio Daaru Habibi Ohio dafa xaw a yàgg ci ligne yi waaw dooma may may rek ñu dugal ko rek. waaw après ñu daal eh, bisimilah bisimilah sëñ Pape Pape Niang. waaw kay waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Pape maa ngi leen di nuyu yéen ñaari Pape yi. <laughs> ñoo ngi lay <laughs> delloo jërëjëf yéen yàlla nangu ziar bu baax di nuyu tamit euh, sëñ Moussa bu baax a baax si euh, waxtaan bi macha allah waxtaan bi rafet na lool. Hmm. waaw dafa am rek euh, laaj bu ma fi amoon rek ñu mosoon moo ko laaj bon amu woon nag tontu bi. mosoon ma ko laaj mais aw ma woon tontu bi mais mooy koo xam ni daal mi ngi woon si tarixa bi waaw wala sax mi ngi si ba léegi jëloon na werd bi mais nag mu faatoon ay eh, werd yu bare ba mu xamatul sax lim bi mu faatoon waaw jàpp na daal eh, faat na ay lim yu bare yoo xam ne toog na weer du ko woon léegi nag mu bëgg na commencé waat léegi nag mu doon laaj lu muy def ndax pour ndax day continuer rek fi mu tàmmale fi mu yamoon wala dafa jëlaat werd bi wala dafa yeesalaat wala nu muy def daal ba fay mu faatu nan lay defaat ba duggaat ci derenam loolu la doon laaj waaw mais daal xamatul lim bu mu faat li mu faat moom xamatu ko ok hmm. jërëjëf macha allah jërëjëf sëñ Pape ah jërëjëf waa eh, dañuy wax ni eh, ben bi ku saggan la eh, te nag saggane wirde yi mo upp na def bari na sax ñeneen ño xamne dañuy def lolu manam dañuy aj wirde yi jël ko au lieu ko boko jëlé nga def ko waaye nga jël ko aj ko ba dag lek da ngay gis ño xamne dañ na 2000 la laa ko jëlun waaye 2004 la ko commencé lolu nak du hmm. bokul ci kooku daal dal liñ ko wax rek mom moy mu dem jëm jëm jëli wat tariqa si serignam parce que lu sax daanaka nit ñi ñokay barkelo rek mais tariqa bi amul yes tariqa bi dang ci nek nga nekk ci bo doge bo doge si tariqa bi nak nga ñew ñu joxat la wérde bi kon lo lañ koy mu dem euh sëriñ serign bo ne ni tabarakallah kilifa la ci tariqa bi am na ndigal mu dem mu yesalat ko ci tariqa bi mu wat te bañ def la mu loolu mooy masala bu njëkkam ñaareelu masala bi tamit mooy masala dañu koy àttee comme masala ki nga xam ne nii dafa demoon ba faat ay julli yu bari xamatul julli na mu doon kooku xam nga bu fekkee ne chariatul islam l'islam daf koy digal mu julli ay julli yu baree baree baree baree baree bari ba mu dem ba mu wóor que mankat li ma julli su ëppul tamit manqué wul mu door a arrêté bu fekkee ne ci wérde wi tamit am na ñoo xam bunt boobu lañ ko ko ubbil mooy dafay def ay wérde di fay ay wérde yu bari ba mu wóor que ne fin fintoon ni moom li mu wérde ëpp na waaye manquéwul ba dem ba sikk deñatul si boppam rek bu boobaa mu arrêté te continuer wirdaam loolu bañ ko dalaat kon loolu bàyyi loolu jërëjëf macha allah jërëjëf si dond bi leer na naa

donation ci uh, ITFA mën nga dem ci uh, zel bi uh, zel bi mu ngi nekkee neuf cent Tijania Foundation at gmail dot com cash app bi da ngay dem ci da ngay def dollar sign mm-hmm. ITFA USA

joxe programme bi xam naa tamit duñu dañ mukk bi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom mi ñu may ñu am kilifa am kilifa goo xam ne toujours rek mi ñuy woo ci siraatul mustaqim di ñu woo ci jàng di ñuy woo ci gën a xam suñu diine ba pare di ko jëfee mu Cheikh Sidi Ahmed Sy suñu baay Cheikh Mouhamad Habib Sy ba suñu maam Cheikh El Hadj Malick naka noonu la ñu tey borom xam-xam bii tamit nga xam ne ku ko dégg tey di nga gën a taxawaat di nga gën a góorgóorlu ndax li mu wax moom leer na nañ li sang bi Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu indi daf ko teg ci jàngale suñu borom subhanahu wa ak ci xool na yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan jëfe Cheikh Moussa xam nañu guddi na ci yow foofu ndax yaa nga tàmbali waxtaan wi ci deux heures du matin quatre heures jot na foofu yaa ngi def ak cawarte gis ñu benn yoon rek nga wone gëmmentu euh, wala dara te tam biñ jokkoo yow ci bëccëg won nga ñu xamal ñu ci yow lii rek ci nga nekk ci jàngale euh, ci nga nekk ci nekk ci toolu yonent bi sallallahu alayhi ci nga nekk kon bokk ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ci liggéey nga tey fii jàppale sëñ bi jàppale sang bi Cheikh ci liggéey bi di la bàyyi nag nga joxe sa kàddu yu mucc mujj bala ñuy delloo antenne bi waaw kàddu kan bu mujj mooy ñun ñoo leen war a sant hmm. ndax eh, opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a tabarakallahu jokkoo waa àddina waxtaan ak ñoom ziar bi nga xam ne mooy Sidi Ahmed si bu baax a baax a baax a baax a baax hmm. eh, ziar nga xam ne ni ñooy mbokk yépp ñaan sunu kàddu tabarakallahu lépp loo xam ne ni jékkati nañ ko fi muy luy jariñ yàlla nañu ko jariñoo ñun ñëpp tabaarakallaahu waaye lépp loo xam ne nii tamit yëkkati nañ ko fi mooy eh, loo xam ne nii safaan la yàlla na yàlla jéggaluñ ko liñ ci bëggoon rek moom mooy mu leer si ñëpp yàlla na yàlla boole defal ñu ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di rafetlu façon liggéey ak ni ngeen ko defee nii tey àndax jamono ba nga xam ne nii tey fu nit mën a nekk ci àddina dana jariñoo diineem te du déplacé loolu wax dëgg yàlla tabarakallahu dégg sa diine la dégg sa jamono la parce que àddina boo déggee sa diine tabarakallahu la nekk yi da nga wéttali ko sa boppam ndekk ko say taalibe wéttaloo to ak tamit seeni mbokki taalibe loolu moom yàlla na yàlla gën leen ci defal tawfiix seen mboolo nii yal na yàlla dugal ci loxo yërmandeem amiin def ci barke lépp loo xam ni naal ngeen ko ci ay naal yàlla yàlla mottali ko barke Cheikhul Tidiane barke Cheikhul Xaaji Malik barke Serigne Babacar Sy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu salaam wa rahmatullahi taala oustaz kon mbokk yi ñoo leen di gërëm di leen di leen sant ci àndandoo bu rafet bi ngeen bokk àndandoo ko ak ñun ci programme bu mag bi ITFA di leen indil semaine bu nekk ajuma bu nekk ñu ko woy xatal tu juma ñu invité waat ajuma bii di ñëw yéen ak seen i ak di jàmm ak njaboot yëpp ci kàttanu ci kàttanu yàlla ba ajuma bii di ñëw fa subhaana lazi bi yadihi malakuutu kulli shay'in wa ilayhi turja'uun assalaamu taala wa jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo ITFA rajo ITFA ànd ak yéen ci programme yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo ITFA ànd ak yéen lépp luy askanu Gambia wala mu soxal askanu Senegal, te nekk ci biir Amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo ITFA ci programme yu am solo Radio ITFA di rajo askan wi. leeram ya jolli na foo xool fa baawaan rajo Itfa daal dama ni jàppal ma bii rajo bul ko bàyyiti ba mukk rajo Itfa rajo askan wi شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي صل على محمد